أوصى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu bu gën a sell ci nuyu bi ba ko ci xol leen sant di leen gërëm di leen mbalu xaq di leen ndokkeel ci bis bi di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal bis bu demee noonu ma jaral ndokkeel ak li ci xew seen bis yi wax na ko léegi xew-xew boo xam ne ban xew-xew mënu ko ëpp islam ñu koy waxtaanee laylatul qadr li mu ëmb li mu suñu borom ci jaam yi waxtaane guddi ajuma di waxtaane weeru koor di waxtaane boo di nabi ñu gàmm te du rajab ñëw di bis bu ràññiku ci diggante yooyu dañ ne laylatul mawlidi ashraf wa laylatul qadr ajjallu dëgg rajo ci guddi goo xam ne bu ñëwee jullit yi dañu war a dellu seen xel te teewlu te si yéene jëriñu ndax njëriñ liñ ciy jëlee fa njëriñ gënee lañ koy jotee te mooy njëriñ li ëpp solo ci njëriñ yi ndax meeraaj ak ak isra ci laylatul qadr ci laylatul Kazu Rajab bii mu xewee suñu borom dafa yëkkati mboolem luy xeetu xéewal te dëje ko adduna bi muy xeeti xéewal yu wuute benn bu ci nekk la ko tax a jóg ak la muy jëriñ ak na ko jaam bi amee ci pas-pasam ak ci jëfam ak ci teewloom xam-xam te bis bi jox ko ko ki nga xam ne nag mooy ci war a guddi gi borom tabaraka wa taala mi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam dafa ne kaana fi ama in ni ko sëñ Tuba waxe kaana ilahuna wala shay ama la taxtahu la fawqahu ila axirihi suñu borom dafa nekkoon fi ama in al ama li ko arab tuddee ci lu bokk nag maanaam mi ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox mu jëm ci suñu borom moo doon ak saxaabu lay tekk mu di niir niir lu tax ñu tudde ko al amaaw te al amaaw jóge ci ngumbo mooy lëndëm gu fat faraj boo xam ne kenn xamu fa dara ñu ne suñu borom dafa nekkoon ci ama ama mooy lan moo di booba bindagul dara bindagul dara dara dara dara dara waaye lépp li mu war a bindi xam na ko xam-xam boo xam ne day leer ba nga xam ne bu ko bindee it dara du ca dolli ko ci xamam gi booba mbir yi nga xam ne yëpp yu war a am la ci borom dana ko bindi soxoon lañ leen tuddee woon ay bir ay bir yoo xam ne amu ci benn bu amagul na mu mel aw melo wala mu am na mu toll wala fu muy jógee wala fu muy jëm wala bu dee lar bu dee jëriñ fu muy tàmbalee fu muy fu muy yemi la lépp dara amagu ci dafa nekk rek ci xam-xamu suñu borom ba tabaraka wa taala suñu borom nag nekk ku rëy rëyaay boo xam ne di ko màgg màggaay boo xam ne di borom kàttan boo xam ne féete na kaw lépp te màggam gi fiir na ba nanguwul dara am ci wetam xam ne suñu borom dong tabaraka wa taala mooy li am leneen amul mun nag waaye kuntu kanzan lam u araf fa ahbabtu an u arafa fa xalaqtu xalqa fa taaraftu ilayhim fa bii arafuni dama nekk ndàmb loo xam ne trésor boo xam ne lu dul jeex mukk mukk ci xeeti njëriñ xeeti màgg xeeti taar xeeti lu ñu bëgg tëje kenn xamu woon bi nga xam ne nag màggam gi tax na dara mënu la am dend ak moom moom rek war a am ndax fiir gi nga xam ne moom la màggam gi fiir ak kàttanam gi réyaayam gi ak sañ-sañam bi tabe gi ci moom ndàmb lu ñu tëj te kenn ubbiwu ko kenn jëriñu wu jël tabe gi wuuteeku nay ndax loolu day mel ne du niru nay mu bind ñu def yi ñu ne sallallahu alayhi wa sallam gannaaw suñu borom ba mu bindagul dara mu ngi woon fii ama in bi mu bindee shu'un yooyu nga xam ne mooy li mu war a bind te xam ko te naroon koo bind li nga xam ne jalaal ak qudra ak azal yëpp tax na dara yeyoowul a feeñ tabeem gi ak baaxam gi tax mu yàlla dara feeñ loo xam ne lii aw meloom lay doon shu'un yooyu alquran dikk ne kulla yawmin huwa fi sha'nin dañu ne Cheikh Ahmadou Rafahi ci jotaay yi mu daan toog di jàngale dafa am jëmm ju ne ko kulla yawmin huwa fi sha'nin sha'n boobu di ci suñu borom jublu tabaraka wa taala Cheikh Ahmadou Rafahi radiallahu taala anhu daal di këram xamul lu muy tontu mu jaaxle tontuwul bi mu tëddee ba guddi gis yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam mu ne ko fi sha'nin yaftadi la yubdi wala yubdi wala yubtadi ko suñu borom jamono ji nekk muy ci mbir moo xam ne sha'nin yubdi daf koy feeñal kat waaye du jagi ne daf ko sos amul dara lu sosu lépp amoon na naka jekk ci xam-xamam ba mu namoon ko waaye nag feeñal rek mooy am waaye du jagi ni ak bind sos ndax sos gi sotti woon na ba noppi Cheikh Amadou Rafahi bi mu dellu siwaatee ca jataay sa ca ëllëg sa toog waaja delloo ko laajaat laaj bi mu ne ko fii sha'nin yubdi wala yabtadi'uhu mbir mi suñu borom di nekk kat du lu muy soog a sos dafay lu sosoon naka jekk ba faw waaye nag jamono ji nekk ak lam ca war a feeñal mu dal ne ko waaja ne ko jullil ci ki la xamal xam-xam bi Cheikh Ahmadou Rafahi xool nag xam ne Seydina Xadir rek la mu xam ne Seydina Xadir kon moo ko doon laaj laaj boobu loolu nag guddi gii nga xam ne ci la ñu warale ci doomu aadama julli yonent bi nga xam ne moom moom guddi gi borom nee na laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana li muy màgg màgg li muy tedd tedd li muy foor foor li ko yàlla bëgg bëgg dafa ñëw rek ngir noo ngir jàngal nu ngir jàngal nu nag kon mooy ñu roy ci moom kon bu fekkee nag danoo war a roy ci moom danoo war a jàng ak dundam xam nam dundee woon ci adduna ak nam fi nekkee woon xam ay meloom xam ay jëfam ci la ñu xam ay waxam xam ni mu fi nekkee woon ci sharia ci bu ko defee lim fi indi ñu tuddee ko sharia ñu jikkoowoo ko ndax lépp ay jikko la ndax sharia daf ñuy jàngal lépp lu ñuy def nañ ko war a defee. kon sharia mutahhara boobu ak xaqiqatul munawwar boobu sallallahu alayhi wa sallam indi dañ ko war a xam ngir mu jubal ñu bu ko defee nu wattandiku jéegoy seytaane fu seytaane tegoon tànkam nu bañ faa teg suñu tànk. suñu borom nag bi nga xamee ne tàgg na mbindeef mi nga xam ne ba mu jógee ci ama boobu ndax soppikuwul bi mu bindee xam ne woon ba mu bindagul dara bindagul aras bi ñuy wax ne yemoon na ca ak nam nekkee woon dara soppikuwu ci bi mu bindee aras loolu lépp nag mi ngi ko bind ci leer da nga xam ne moo njëkk a fekk mu tibbe ko ca leeri bopp yi mu di leeru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne nag suñu borom bind na leer googu bind ci lim bind lépp dafa sàkkal yoon woo xam ne bindee fii dafa sàkkal ni ñu war cee jaar ba ak ci boom ngir tabeem googu mu tabe woon ba tax mu ne ndàmb li mu doonoon te tëju te kenn ci jiwu ko te tabeem gi tax mu war koo tijji mu sàkk kon yoon yoo xam ne ci lañu war a jaar ngir mën caa jëriñu mu won nit ki yoon woo xam ne faw daf koy àggali ci yàlla bu fekkee ne suñu borom daf ko bind muy koo xam ne kii ruu gi dafa sopp jëmm ji mu dugg ndax roo bu soppee jëmm jàmmoo day nekk seen diggante bëggante am seen diggante bu ko defee dañuy jaxasoo jaxasoo boo xam ne de beneen xeetu jaxasoo lay doon boo xam ne day may jëmm ji kàttanu bëgg yàlla kàttanu xam yàlla kàttanu wéetal ko ak kàttanu mën a muñ lépp lu tiis te jëm ci yàlla ak kàttanu itam sawar ci jaamu yàlla ba du tàyyeel mukk ak kàttanu bu demee ba àgg ci jàngloo kumpa yi nga xam ne moom la suñu borom lépp yëpp da nga xam ne ruuxa koy gis yaram du ko gis roo gi bëgg gi mu bëgg jëmm ji ak sopp gi ak xiir gi jaxasoo bi ñu jaxasoo daf koy wàll ba nga xam ne yaram ci boppam day daal di amee melow ruu loolu daan ko waxtaane léegi bu boobaa bu ko suñu borom mayee cir boobu ba mu sawar ci jaamu yàlla loolu daf koy takk takkul gën a xiir ci yàlla ba mu gën a bëgg yàlla xam ngeen nit bu fekkee ne bëgg na yàlla day daal di am daraja ju kawe yoo xam ndax daraja bëgg yàlla ñetti daraja rek la daraja yu njëkk ji yonent yi ak malaayika yi ak xutbul xaw si ñoo koy yelloo moo di bëgg koo xam ne amul sabab ndax bëggloo yàlla ngir xéewal jim la defal bëggloo yàlla ngir àjjana jim la jëmee bëggloo yàlla ngir jàmm jim la may bëggloo yàlla ngir dara benn sabab bu ñu ne nangama tax nga bëgg ko dañ ko bëgg ngir jëmmam ju tedd ja rek loolu nag du lu ñuy jàngale melo la woo xam ne suñu borom moo koy mooy baaxe nit ba may ko ko waxtu woo xamee ne nag nit ki suñu borom may na ko bëgg suñu borom boobu nga xam ne ajuwul ci dara bëgg la rek boo xam ne rek daf ko bëgg rek te dara taxul nga xam ne bu xamoon bu leeroon ne safara la ko jëmee du tee mu bëgg ko te bëgg boobu dara du ci wàññi ko te dana ko jaamu na mu yelle te lépp lu mu def ci suñu borom dana ko xeeb waxtu woo xamee ne suñu borom may na jaam lu toll ne bépp sunguf ci bëgg boobu mu def ko ci xolu jaam bi jaam boobu mën a xeet li adduna bépp jaam boobu jamono dañ ko koy taxañal ak bërëb bërëb dootu sori ba ba gisu tiiwul la fa nekk jamono du yàgg ba mu juddoogul wala ba yàlla bindagul ñu def yi lu dul tiim na loola ba mu mel ci moom ne lii mu tiim bëggeel boobu nag bëggeel mooy ñi nga xam ne ñoom la suñu borom sàkk bëgg leen ca asal bay wërsëgal leen ci bëgg boobu ñooñu nga xam ne ñoom la yëkkati dayoo bi yëkkati àggale leen koo xam ne kenn mënatu koo xam ne lu mu mën a doon rek ndax day doon bëgg boo xam ne amiwul at ñaareelu bëgg gi mooy ñi nga xam ne dañ ko bëgg ngir xéewal gi mu leen xéewal bind gi mu leen bind ñu bokk ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aw melo bind gi mu leen bind xamal leen boppam bind gi mu leen bindal dugal leen ci lislaam ñu juddoo ci réew yoo xam ne réew yi lislaam la ak xéewal gi mu leen di xéewal ñu mën a jaxasoo mbindeef yi seen benn cër manquéwul loolu lépp ñu xalaat ko bëggeel boobu muy bëggeelu sant boobu bëggeel rek la ñu jàngale moom la yonente bi jàngale gi ci def mayu yàlla lay doon bëggeel gi mu jàngale nag nit ki mën na cee dëgg farlu ba àgg ca bëggeel bu njëkk jee bëggeel boobu nga xam ne mooy bëggeelu ñaareel gi moom la yonente yëpp jàngale wa sunu jaara bu xolafa min baadi aad wa sunu jaara bu xolafa min baadi xaw mi nooyin ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ahibullah lima yuhdikum min an-ni'am sopp leen seen borom ngir xéewal yi mu leen defal wa ahibuni li mahabbatillah iyaaya te ngeen soppam ngir yàlla yàlla mi ma sopp ngeen sopp ma ngir sopp gi ma yàlla sopp wa ahibu ahla bayti li mahabbati lahum ngeen sopp itam sama mbokk yi nga xam ne ñoo ma jege ngir bëgg gi ma leen bëgg ñoom itam kon nit ci bu fekkente ne aw na yoonu bëgg a sàkk bëgg boobu bëggu ñetteel gi mooy li nga xam ne bëggu imtisaal la ndax bëgg yi nu wax mu gu ñaareel gi moo di bëggu sant kooku la yonent yi jàngale ndax sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne dafa sëgg di siggeet ba mu yàgg lool ba sayyidatina Aïsa defe ne daf see jóge bi mu jàppee ci ñaari mbëgg yi yëkkati ko ne ko yow suñu borom yàq yàq xafarallahu laka maa taqaddama wa maa ta'axara suñu borom jéggal na leen lépp yëkkati la ci maqaam mu kawe te doon ndax doon noppalu mu ne bu afalaa akuunu abdan shakuuran damay sant suñu borom. nga xam ne kon nit ki bu ko suñu borom xéewalee topp xéewal boobu mu ko jëmee ci topp daf koy dolli ak dëgg yàlla waxtu woo xamee ne itam natt na ko ci mu mooy mooy boobu day tax mu gën a tuub gën a ragal yàlla kon lépp daf koy delloo ci yàlla mu di mooy mu di topp lépp daf koy delloo ci yàlla kooku mooy yoon bi nga xam ne moom lañ ko xamal waxtu woo xamee ne am na lu ko jaaxal xawasam jooju yàlla rek la koy diis ndax day daal di seede kàttanu yàlla ak manam moom dong bu ko defee te wax yi ko foofu yoo xam ne itam day yóbbu jàndi fu kawe nga xam ne kon muy xéewal muy musiba lépp a koy gën a buux jëme ko ci yàlla amul lenn loo xam ne dana dox digganteem ak yàlla jaam boobu bu fekkee ne nekk na ci sàggan mooy ki nga xam ne dañu naan dañ koy xëccëg ay jàlla la jëme ko ci yàlla bu fekkee ne mu ngi ci xéewal yàlla moom mooy doxal boppam jëm ci suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne kon jëf yi nga xam ne moom la suñu borom sant jaam yëpp jëf ji mu ci doon jullit bi nga xam ne ngëmam mat na daf cee awar a am bànneex ndax daf koy gën a xamal borom di ko gën a jegeel di gën a raxas xolam bu demee nag ba nga xam ne jamono toll na ci nit ki buy jëf jëf ji def ci seenu rek njëriñ lu teew bu boobaa xolam ma ngay tàmbali ci sori suñu borom ndànk-ndànk ndax waxtu woo xamee ne yaa ngi jëf muy jëfi topp loola jëf yoo xam ne da ngay dimbali sa moromum jaam wala da ngay waxtaan ak moom di ko wettali wala da nga koy xetli wala lu mu doon nga am ca bànneexu li ngay jëf da nga xam ne dafa neex yàlla nga am ca bànneex bu ëpp leneen loo xam ne li doo ko ca seenu ci njëriñ lu teew bu nga xam ne kon jaam bi bu demee ba xam ne jëf yi muy jëf muy jëfi topp muy jëfi dimbalante muy jëfi àdduna am na lu mu cay séenu loo xam ne bu ko ca yaakaaratul dootu sawat ci jëf ja booba taw itam mu ngi wàññi ko. nit kon su borom sant ko bi mu ko joxee xel ndax alquran borom xel yi rek lay waxati ne fi zalika la zikra li ulil albab ne fi zalika la zikra liman kaana lahu qalbun inna fi zalika la ibratan li ulil absari inna fi zalika la ibratan li ulil albabi nga xam ne alquran suñu borom waxu ci lu dul borom xel yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu dee wax naan al mu'minu la yundaku fi juhri marratayni aji gëm dëgg yàlla du dugal loxoom ci kan dara màtt ko mu di ko ca delloo dugg ci dugul ne jullit lépp lu mu def bàkkaar set ko ca wala mu seetaat boppam xam ne xolam bi ci jëf ji mu jëf am na lu ko ci wàññi dara dootu ko dolli mukk fu mu toll dafa koy tuub tuub boo xam ne day dogu ci du ca delloo si mukk nga xam ne dugg safara moo ko gënal dolli ca loola la ñu dem nag ba nga xam ne doomu aadama yi fàtte nañ ne lépp loo xam ne lii luy ñëw ci suñu kanam la lu jege la loo ko séenu séenu mu sori inna mu yaraw na bu ba'idan wa naraahu qariban waxtu woo xamee ne doomu aadama yi dem nañu ba dee sori si ñoom nga xam ne du nekk lu jege loo xam ne ni dañ koy tiim loo xam ne ni daf leen di tiital nga xam ne dañuy ragal ne fu ñu dox daanu ci buñu demee ba nga xam ne dee dootu leen jege ci seen xel daf leen di sori noonu nga xam ne day mel ne lu ñëwagul booba yàq ko dikk na ci ñoom loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bada ad diinu xariban wa sa yaudu xariban wa tuuba lil xurabaa'i diine bi mu tàmbalee tumuranke dem na ba mujj gi dellu day delluwaat ci tumuranke ba nga xam ne képp ku nekk ci diine am nañu ñoo xam ne dañuy àgg foo xam ne ci yàqu jamono dañuy rus tax ne jullit lañu wala ñu ruse béréb yoo xam ne dañu fay ruse julli wala ñu ragal ko bu boobaa diine day daal di nekk lu tumuranke lu wéet ndax nit bu demee ba nga xam ne diine dootu ko mën a wéttali te boo xamee ne xam nañ ci moom diine mu dal di tumuranke dal di wéet booba jamono yàqu na yàqu boo xam ne bii doomu aadama yi war nañoo delloowaat dajale seen bopp seetaat yàqu-yàqu bi ñu jéem a fexe ba dindi loolu la bi nga xamee ne nag léegi dem nañ ba nga xam ne doomu aadama yi am na lu dox seen diggante diine te moo di adduna adduna ji nga xam ne bis bu nekk day gën a bees ci ñoom ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne suñu borom dafa bind adduna def ko muy lu neex ci xoli jaam ñi def ko muy lu leen jege def ko muy loo xam ne lu ñu bëgg lañu muy loo xam ne kon jaam bi du ko fàtte mukk fu mu toll daf koy wax di ko woo da seytaane ànd ca bu ko defee mu fàtte li nga xam ne daf ko sori lool ci xolam ndax ngëm bu dellu gannaaw ngëm ba nit ki nga xam ne daf naan man de feeg maa ngi julli bu waxtu jotee jullit laa feeg bu ma mënee aji aji jullit laa feeg bu koor jotee ma woor jullit laa te xamuñu ne loolu ay jëfi saahir rek la jotewul dara ak ngëm gi dëgg ndax loolu naafeq mën na ko pour jullit mën na ko waaye li nga xam ne moom la naafeq bi mënul mooy bëgg yàlla ak xam ko ak mu jaral la lépp loo xam ne lii leneen jaral la ba lu dul yàlla jëmm ji kon mën a dem ci place yoo xam ne yii place yàqu yàqu la dem ci béréb yoo xam ne béréb bi fola dem ba summi ke sàmpanni fële dem ba nga li nga xam ne moom la ko sere doom sere mu di ko def ba noppi kat mu ne nag man kat damaa civilisé damaa avancé damaa évolué ñu seet bu seetee ne civilisé boobu li ñu tuddee li mu tuddee civilisé mooy ñàkk civilisé li nga xam ne itam moom la tuddee progrès moo di dellu gannaaw ñu seet ne kon évolution boobu muy woote ana fu ñu ko féete ndax doomu aadama yi ba ñu nit yi ñëwee ci kaw suuf ba léegi bu ñu seetee seen diine day dellu gannaaw seenu bëgg adduna ak seenu yokk jëm ci adduna dem fu mu toll di yokku di gën a jëm kanam ñu gis ne adduna bi bu seetee doxinam wi dana ci am lu ñu yéem moo di adduna bu ñu ko seetee waa Misra ñoo fi njëkk a yeewu ñoo fi njëkk a ëpp xam-xam ñoo fi njëkk a li ñuy def taqaddum waaye suñ jógee dañoo jàngal waa Yunaan mooy Grèce xamal leen lépp lu ñu xamoon civilisé leen xamal leen adduna xamal leen mbiru diine xamal leen mbiru spirituel ñooñu itam bañ jógee ñoom it li ñu xamoon lépp dañ koo xamal romain yi romain yi itam ñoom itam bi ñu ñëwee Europe xamal leen li ñu xamoon ñu seet nag kon waa Europe ñi nga xam ne léegi ñoonu bëgg a jaay évolution nan la ñu def ñoom ñoom day ñi nga xam ne noonu la leen ñoo ñu defaloon ñoom defaluñ ñu ko ndax waxtu woo xamee ne am na ay xeexkat yu ubbi am réew dañ fay indi seen xam-xam indi fa seen civilisation indi fa seenu yokkute indi fa seenu dolliku bàyyi fa lépp noonu la adduna tàmbale woon ba du mu agsi si ñoom ñoom européens yi nag ñu dikkee ñoom daal di ubbi Afrique lu ñu def dañu leen a nëbb xam-xam yi nga xam ne ñooy tax ñu am kàttan ci adduna mën a note mën a am ay pexe yu leen di yóbbu fu sori mën a wëlbati lu nekk ñu nëbb leen ko jàpp leen di leen jaayi Amérique ñu di leen bayloo ba taxi suukar tardeel leen ñu ne gis ne kon buñ ne adduna mu ngi yokku yokkootul kon ndax gannaaw ñi daan mokkal réew yi dañ leen daan indi li gën a baax ci ñoom jàngal leen ko ba ñu mel ne ñoom ñoom itam buñ fa jógee dem ci yeneen réew yoo xam ne xamaguñu dara yewoo guñu ñu yee leen jox leen xam-xam booba bi ñu demee nag ba agsi ci Europe ñoom ñu def safaanub loola bëgg nit ñi di si- nekk seen i jaam ba faw ñoom bi nga xamee ne lii tax nit nekk ak gor moom boppam mu di xam-xam technologie dañ leen koy nëbb ba noppi delloo leen ci njaam lañ fekkoon ci ñoom ñu am ko ci civilisation ñu gën koo dindi ci ñoom ba defee xañ leen ko ngir gën leen a moom ba faw mu ne kon évolution bi ñuy woote fan la nekk kon day évolution bi woon kon mën na delluwaat ci gannaaw ngir toog fay seeti waaye duñ ko seeti fii ndax bu ñu demee ba ci ñaar fukkeelu siècle li ñu tuddee vingtième siècle muy bëgg a jeex te doomu aadama ba mu nekkee ci foofu ba tey muy jàng lu seet fi mu toll dootuñu am yaakaar dañuy dal di am njàqare ak tiis ndax lii xew ci jamono bii léegi buñ ko seetee te ñu ne àgg nañ ci vingtième siècle dañoo évolué danañu tiital ndax bu fekkente ne dañoo mab tabax yi nga xam ne moom la ñu fi jiitu ñëpp tabaxoon nga xam ne dañ caa war a sas ngir di gën a jëm kanam ñu toj ko ba noppi nag bëgg a tàllal beneen fondement boo xam ne fondement wu yàq la bëgg nu caa yar bëgg nu caa jummin bëgg nu koo wan nu di ca jaar bu ko defee te ubbiwuñu suñuy bët nun liñ ñu jàngaloon ci diine ngir mu mën a defar suñu adduna defar suñu alaxira nu wan ko gannaaw xeeb ko ba dem loo yàq loo leen ñu indil ñu daal di koy nangu ak suñu ñaari loxo bu ko defee doo suñu yokk ci adduna doo suñu yokk ci àllaaxira ñu dem ba kon nit ki am béréb yoo xam ne rus na faa julli ngir complexé nga xam ne day daal di bëgg a layee ne sama diine du ma fexe bañ ci ko ree fii boo fi jullee dañu may reetaan xanaa xamuñu ne moom mii julli moo waroon di ree ñoo ñi nga xam ne duñu julli mu ñàkk bopp nag nangu nax yi ñu koy nax ba mu moom muy rus moom mi amee lu baax mooy rus ñu amee lu bon nag di sig di yëkkati seen bopp ñu jàpp ne kon léegi xam leen rek mooy xam lépp ñu jàpp ne kon ah ñu dugg ñu bàttal ndax fii ñoom ah xalaat yi lis na nag ñoom ñi nga xam ne ñoo seet adduna bi léegi tiim ko di jëfandikoo lu leen neex di jëfandikoo ci jaam ñi ci jullit ñi ak ci ñeneen ñi dul jullit ñi civilisation bi ñu amee ñun ci ko nga xam ne mooy civilisation industrielle civilisation bi alquran indi gën ko fukki junniy yoon mu gis ne léegi bu ñu dee seet civilisation l'islam civilisation bi ñu indil mu ngi tàmbalee ci iqra bismi rabbika ndax yoon bi yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam di ko suñu borom di yónni safara leen di kës seen ci xur wu tedd bi xamul lu mu doon waaye booba xelam dem na ci ne lu mag moo ne ci kanamam bi mu àggee moom suñu borom daf koo dal di wane ne wuree bi nga xam ne li mu war a liggéey léegi dafa teew daf koo dal di feeñu fi saa si rek ca tam kàttanam dal di ko yónni fi saa si jox ko it ay kéemaan yoo xam ne bu demee moom lay tiidale ki nga xam ne ci moom lañ ko yónni te muy borom doole l'islam nag njàng la tàmbalee iqra bismi rabbika alladi xalaq bu fekkente nit ki jàng na bismi rabbika lu seet ak fi nga xam ne civilisation civilisation industrielle la léegi boo tawatee nga dem ci médecin bi di faju borom civilisation industrielle bi borom évolution bi civilisation bi nga xam ne moom la médecin bi amee daf koy laaj xaalis xamul ne am na buur boo xam ne li nga xam ne jullit bi nga xam ne mooy civilisation alquran moom dafay daal di gis ne jeexaar taxaw na jaam bi mu war a xettali yàlla daf koo nattoo jox ko kattanu mën a xettali kii muy ragal ni ëllëg bu ko xettaliwul daañu taxaw ci kanamu yàlla te buñ taxawee jaam bi dana ko yey te dana ko poñe te kon dana fab yoolam ak tuyaabaam jëriñoo ko moom bu perte mu daal di ragal yàlla xam ne it jaara gi nii kii muy xettali bu ko xettalee dana am tuyaaba joo xam ne xettali bakkan bu naroon a rot lu rëy la nga gis ne kon ki nga xam ne nag civilisation occidentale la amee xaalis lay dal di wut day dal di laaj nit ki xaalis fayu ko bu fekkee ne joxu ko xaalis mu négligé ko sàggane ko bakkan bi rot xanaa xam ngeen ne kon borom civilisation alquran moo ëpp njëriñ ci adduna ëpp njëriñ ci àllaaxira nga gis ne sàcc bi itam bu fekkee ne attekat bi koy atte amul civilisation alquran gisatul lu dul xaalis ndax adduna bi xaalis dañ ci xewaat ba nga xam ne moo nekk ci bopp nit ñëpp mu daal di gis ne kii kat toll na ci diggante boo xam ne mën na ko exploité ngir am li mu li ne ci loxoom nga xam ne moo xam moom attekat la moom mi war a àtte sàcc bi wala daf ko war a garder wala lu mu mën a doon bu fekkee ne mën na jëlee ci moom xaalis la ca waroon dootu ko def nga xam ne kon société boobu day dal di mujj yàqu naka noonu liggéeykat bi nga xam ne moom itam ci muy liggéeyal daf koy fay moom bu regalul yàlla nga xam ne civilisation occidentale la amee day wax rek moral lay wax te moral boobu muy wax kat du ko jëfee mën na koo jàng ci lekkoon bi mën na koo waxtaane waaye niwul ci biir xolam ndax ragalul yàlla ci ragal yàlla daal mooy moo mooy koy wóor ne ay malaaykaan ko tiim te borom bi ko tiim xam na léppam bu ko defee mu ragal borom bi ragal la cay juddoo ëllëg mu daal di def la ca gën xam ngeen ne kon ñooñu ñoo ñi nga xam ne ñoo mën a baaxal adduna waaye ñi ci des mënuñoo baaxal adduna looloo tax ñu dem ba toll ci diggante boo xam ne lañ jëm si yàggal nga gis xiif ay xeet yoo xam ne li ñu amee ci alal du jeex mukk mukk mukk lu ne mën nañ ko cee def ñu gis ay xeet yoo xam ne xiif daf leen di rey ñu dem ba àgg ci diggante boo xam ne dañu ne ñoo gën a civilisé ci adduna ñuy jëf jëf yoo xam ne mooy li ñu tuddee sawaat moo gën a sawaate ci adduna mu bu seetee liy xew ci Yougoslavie gis day xew ci Somalie gis lay xew la xew ci Algérie gis lay xew ci Bagdad waaw gis na kon civilisation bi ñu ñu wan du civilisation lii civilisation mooy li nga xam ne sa morom moo mën a dimbali da nga ko dimbali sa morom moo mën a xettali da nga ko xettali li nga xam te mu am njëriñ da nga xam ne yàlla dina la ko laaj ëllëg boo ko xamalul sa morom mu jullit loolu moo di civilisé waaye lii nga xam ne nag ci la nekk moo di adduna bu mabbu daal di dellu gannaaw ñu delluwaat ca ba nga xamee ne doomu aadama ngi toog a nekk ci kaw suuf nga xam ne xamagul sax safara woo xam ne ñu gën a ko mën a jëfandikoo xamagul benn gànnaay xamagul dara ñu gis tam ne xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci jamono bii ñu nekk daf ñuy daal di xamal kon ñun jullit ñi bu ñu waroon bu ñu yeewu woon ñu daal di xam ne kon ñun topp ñu ngi dugal ci adduna boo xam ne adduna buy dellu gannaaw la ba faaw ba fi jëm kanam mukk kon ñu daal di war a seetaat suñu bopp. ñun nag loolu defuñu ko dañoo daal di gëm ah ñi nga xam ne kon ñoo amee kàttan bi te feete ñu sow loolu mooy suñu màggal suñu maanaam musiba mu mag mi ñu gis ne Masih Dajjal bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax. léegi mooy ñëw te kàttan gi ko suñu borom jox dana dugal ñëpp safara lu dul ñu néew a néew a néew gëm gi mu leen gëm nag alxuraan wax ne walaw kaanu yu'minuuna billahi wa nabi wa maa unzila ilayhi mattaxazuhum awliyaa lu nag dañ leen a jàpp ñu di suñuy kilifa te loolu nag la alxuraan moom la ko tere ñu gis ne kon kilifteef amatul ndax yaru tubaab moom tubaab moom boo xasee ba am fukki at ak juróom ñett kenn yilifatul kenn kenn yilifatul kenn mooy lu la neex def lu nag suñu diine daf noo tere lu nu neex def nun suñu société bi nga xam ne l'islam a ko sos l'islam moom dafa bi nga xamee ne famille li muy jëriñ moo di famille bi góor bi moo amee baat bi mooy amee kilifteef bi mooy digle di tere lépp lu bon xale yi nga xam ne ak jigéen ñi seen xel matagul moo leen di jaarale ci yoon bi nga xam ne ci lañu war a jaar bu fekkee ne góor gi nekku fi doom bi nga xam ne moo mag mooy kilifa képp koo ci xam ne kii am na koo mag te nga mag yaa ko yilif te fu mu toll da nga koy jaarale ci yoonu jub ba nga xam ne waxtu bu nekkee ci lu jubul bu la gisee day dal di ragal walbatiku dellu ca la nga xam ne mooy li nga ko sant bu ko defee famille bi ci seen bopp ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nga xam ne yaa seeti ko sa morom da nga koy yar di ko yee di ko xamal famille bi day dal di dëgër ñu jàppante nekk ci jàmm nekk ci jub bu ko defee ki nga xam ne xamul day jàngal ci xam mu xam ba baax ba mel ni nga xam ne noonu la ñu bëggoon mu mel ko moom itam beneen famille bi mu dendal dañuy lonkoo dal di jàppante ñoom itam dal di nekk benn bu ko defee waa quartier bi yëpp dañuy dal di nekk benn quartier bi itam benn quartier bu ci nekk ak quartier ba mu dendal moom itam dañuy jàppante dindikonte fasante wëllëre jàppante xam li leen lislaam dëgal digal ñu def ko bu ko defee dëkk bépp day dal di nekk moom itam benn bopp dëkk bi itam dëkk ba mu dendal noonu ba réew mi tey loolu mooy yar bi nga xam ne moom mooy lislaam indil doom aadama yi ci adduna muy jullit ñi ñu gis ne am na ay li ñu tuddee ay valeur valeur yi nga xam ne nag ñoo ëpp doole xaalis ndax bu njëkk sunu maam yi dafa am valeur yoo xam ne moom lañ tegoon ci seen kanam moo di ngor moo di jub moo di xam-xam moo di yarute moo di baax nga xam ne kenn ko ci seen kanam moo di ngor moo di jub moo di xam-xam moo di yarute moo di baax nga xam ne kenn ku nekk loolu ngay bàkkoo kenn ku nekk loolu ngay gënee sa morom kenn ku nekk loolu ngay seet ci sa morom boo jëflanteeg moom képp ki nga xam ne da ngaa war a jëflanteeg moom da ngay seet ci moom yooyu seet ci moom ak ragal yàlla bu ko defee nga wóolu ko ni nga wóolee seen bopp ngeen boole seen bopp nekk benn bu ko defee société bi ci boppam day daal di nekk société bu sell boo xam ne wor du am wuruj du am naxante du am kenn du lekk lu xaraam nit ki ci juddoo day dal di yiwee day dal di màgg ci lu baax ay cëram làgg ci xolam xam ko mu dal di xam lu baax dal di jub fu mu mën a toll loolu bu fekkente ne am na mooy yarub lislaam bi nga xam ne moom la lislaam indil jullit yi loolu mooy li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa doon doxale ndax daf daan def faram nañu ko wax nañu ko ci waxtaan yu bari daanaka soxlaatu la wax sax daara yi ñu ko jubloo woon dox seen diggante ak waa adduna ndax dafa ñëw fekk ci adduna bu yàqu ba noppi te bu fekkente ne yaa ngi bëgg a faj ay malade doo ko doo leen bàyyi ñu jaxasoo kenn ku nekk ak sa jàngoro bokkul ak sa jàngoro yi moroom sa jàngoro ja nga xam ne moom nga amee ba sa moroom amu ko nga wàll ko ko mu boolee jàngoro jam amoon loolu moom la dindi sa daara yi bu ko defee mu isolé leen ñu bañ jaxasoo ak waa adduna bi ñoo ñii nag mu tàmbali di leen faj di leen faj ba ñu wér bu ñu wéree ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mu sàkkal la itam hôpital boo xam ne da nga fay nekk di faje loolu bu fekk continuer yoon woowu mu ubbi woon ba tey bu continuer waa adduna bépp ba waa réew mépp noonu la ñuy mel di nit ñoo xam ne ñu sotti lañu boo ko seetee si ñu yaroon da ngay dal di gis loolu léegi nag bu fekk si ne dañoo wàcc yoon woowu nga xam ne moom la ñu jaarale woon te mooy yoon yoon li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaarale woon di nit ñi ndax ñi mu yaroon dem na ba nga xam ne valeur yooyu la ñu seetoon waaye xaalis amul woon benn manipulé ci seen xol mënu leen a jënd mënu leen a jàdd loolu toll na bën bënu pusa xam ne fu ñu toll ñu ngi teewlu buur bi nga xam ne moo leen tiim xam seen lépp ñu ngi teewlu nekk malaayika yi yonent bi yar ji mu leen daan yar gëst yi mu leen daan jox ci wet bu nekk nga xam ne dem nañu ba kenn ku nekk ci yàlla nga aju ci lu baax nga aju valeur yooyu ngay seet waaye seetatoo adduna ba nga xam ne kenn ku nekk loo am sa morom nga koy yéene nga xam ne bu fekkonte ne taxawal nañ la di la laaj benn secret boo xam ne day lor sa benn mbokkum jullit buñ la doon rendi ñu def paaka bi ci sa bëli yi dañ lay rendi waaye doo ko wax mukk ndax yow sa bopp nga dee moo la gënal nga lor benn jullit wala kenn dee ngir sa sabab melowoo nga xam ne buñ ko melowoo kenn du leen mën a tiital kenn du leen mën a xëbal kenn du leen mën a jënd kenn du leen mën a jaarloo yoon woo xam ne bokkul ak yoon wi gën mooy loolu mooy daara ji nga xam ne mooy daara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ci génne noonu la ñu mel dañ tubaab ñi génne ci daara yonent bi nga xam noonu la mel daaraam yi mu samp itam yoon woowu la leen jaarale nga xam ne kon mooy ñi mu préparé ba nga xam ne adduna bi muy jëm adduna bi ñëw lu mu yàqu yàqu yàqu daal ñu mucc ci yàqu yàqu yi gis ngeen bi nga xamee ne nit ci laaj na ko ne ko ndax nit bu fekkee ne am na sëriñ dem ba mu yàgg gisatul sëriñ ba benn sëriñ ba dafa génn adduna wala sëriñ ba dafa nekk ci réew yoo xam ne ay géej dox na seen diggante wala ay mandigay sëriñ mënatu koo gis ndax dafa war a wuti beneen sëriñ wala dafa war a jàpp te kooku rek gis ngeen ni mu ko tontoo woon na ko bala ngay laaj loolu da ngay njëkk a laaj kan mooy sëriñ nan la sëriñ bi mel xamal ko meloy ñetti sëriñ yooyu ak sëriñ bi ci nekk charte ñetti charte yi nga xam ne moom la am sëriñ bi ci digg bi moom rek ci la ñuy dem ndax moo aji ci li ñu bëgg a wax mooy seexu tarbiya bi mu xamal ko ne seexu tarbiya bokk na ci ay sartam mu xam gannaaw bi nga xamee ne xam na yoonu tarbiya ba noppi xam sharia xam xaqiqa mais nit koo xam ne kii xam na yàqu-yàqu jamono bi jàng jamono bi ba xam ni mu demee xam ku yàqu-yàqu yu jugee xam na mu koy taatanoo xam xol boo xam ne yàqu-yàqu yooyu dugg na ca nan la koy raxasee nan la koy fajee ba mu wér mën a defar itam nit koo xam ne dafa duggagul ci adduna bi te war ci dugg na nga koy defaree ba nga xam ne adduna bu mu mën a dugg lu mu yàqu-yàqu dañ kenn du ko mën a dara day mucc jàng moomu ñu jàngaloon nu bàyyi suñu bopp muy balaat di boy di dajeeg yàqu-yàqu yi di dajeeg bon bon yi adduna bi ubbi ko ci suñu kanam nekk lu naat lu neex lu rafet lu neex ci suñu xol tey lu teew lool nu tàmm ko gis njëriñ li di ciy jëriñu ba am ci mébét yoo xam ne dafa nuy xañ jaamu yàlla dindi leeru bànneexu jaamu yàlla ci suñu xol ngir bëgg adduna googu nu dem ba nga xam ne xaalis mooy lépp ci am xaalis bi ñu koy xoolee bi ñu ko xoolee kon nga xam ne ni ngay gisee xaalis doo ko gisee dara ci adduna bon loolu moo tax ñu mën ne kon yoonu àjjana wéet na wéet na wéetaay boo xam ne tëj na ko wéet weneen yoonu safara yi fees na fees boo xam ne kenn xamul na mu feese dañuy raj raj loo ba fees dell ndax li nga xam ne lépp lii sa koy jaay amul dafay cher ci du tee nit ñi dañ koy raj raj loo di ko jënd waaye li nga xam ne yàllaa koy jaay muy njëriñal ëllëg bu fa ñaari nit taxawee wala ñett lu néew la te dañu fa yàgg waaye nag wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu jaam bi bu ragalee kenn ku dul yàlla ngëmam des na bu amee lenn lu muy xamee ni dem ci adduna ba mu wàññi dara ci jaamu yàlla wala mu jëlee xolam fam nekkoon ci wóolu yàlla ak ci teewlu ko ak wétlikoo ko ngëmam des na war naa seet ak boppam suñu borom tabaraka wa taala nag ni ma wax woon ci tàmbali bi nekk dafa xotti yoon yoo xam ne ba mu bindee adduna bi indi ci jaam ñi fa neexal adduna ba mu mel noonu nga xam ne ba mu bindee ajjana dafa ne Seydina Jibril demal nga seeti béréb bëri ma bind ba ko Seydina Jibril xoolee ajjana ba mu dellu see dafa ne ko giñ naa ci sa tedd nga ji ak sa màgg gi nekk benn jaam du ko mooy du mooy ajjana ndax neexaay bi mu neex ak ni mu mel moom jar na jaam bu ne def loolu amul kenn ku ca dul dem ndax ñëpp daañu def lépp lu mu leen lu ne rek jaral na leen ko ba ñu dugg def suñu borom jàpp ay naqar ak i tiis ak wéetaay ak wañso wërale ko àjjana ne ko demal nga dellu nga seeti ko bi mu dikkee seet musiba yi ko wër mu dellu si ne suñu borom giñ naa ci sa mag gi ak sa tedd gi ne sa tedd nga gi ne àjjana kenn du ca dem ndax yii naqar yii tiis yii métit kenn xamul lu ko kenn mënu koo muñ ba àgg àjjana mu bind safara ne ko demal seeti ko mu gis wañso yoo ak métit yi ak naqar yi ak tàngaay yi ak tumurante gi ak lépp lu bon lu fa nekk luy lore mu dellu si ne suñu borom giñ naa ci sa mag nga ji ak sa teraanga ji ne amul kenn kuy dem safara ndax lee moom ku ñu wax na mu mel jaamu yàlla dootoo ko noppalu te dootoo jege lu ñu tere mu daal di sax bànneex yëpp wërale safara ne ko dellu nga seeti ko mu demee ba gis li wër safara ci bànneex ak i teraanga adduna yu teew mu dellu si suñu borom ne ko ginnaa ci sa mag ak sa tedd nga gi ne sa safara ñëpp a cay dem ndax ji xéewal ak ji naataange ji moom sa bopp ak lu la neex def ci moom ñëpp a cay dem ñëpp ay dem safara nga xam ne kon loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne xuffatil jannatu bil makaarihi wa xuffati naaru bi shahawaati suñu borom dafa peeg safara ak i bànneex peeg ajjana ak i naqar jaam bi nga xam ne moo aw yoonu ajjana day gëmm bëtam sa tuus ci métit yi ak tiis yi ak naqar yi ak njàqare yi ak ñàkk bi ak tumuranke ji mu tumuranke ndax diine day tumuranke ji ba mu mujj borom nga muy wees yëpp dañuy rusa askanoo ci diine suñu borom dana natt jullit ñi natt bu metti boo xam ne ku sa ngëm dëgër nit da nga nëbb sa nëbb sa diine wala nga wàññi ngëm nga loolu mu ngi bokk ci xofsatul jannatu bil makaari bi gannaaw nag kon ajjana noonu la nattee képp koo xam ne bëgg nga caa dem war ngaa muñ ci yooyu war ngaa muñ naqar yooyu te war ngaa xeex ak sa bakkan te it adduna bi waru laa war waru laa nax la yaxurrannaka taqallubu allazina kafaru fi lbilaadi mataawun qalilun summa ma'waahum jahannamu suñu borom def na ko wan bëtit gaa yàlla adduna yàlla jox jim leen ko jox teg ko ci seen loxo ñu di ko wëlbati moom leen neexe di bànneexu bànneex ba gën a neex am cristéef moom lépp ba mu la war mukk lu yàgg-yàgg mataa un xalilu bànneex bu gàtt la ndax dee ngi ñëw te jege na sunu ma waam jahannam dañ fay jóge rek dem dem dem jahannama kon jaru ko kon mépp musiba moo xam ne àjjana topp na ca musiba mu néew la mu ñàkk solo la waaye bépp bànneex boo xam ne safaraa ca mujj musiba naaru laaye ngoog mborom nag adduna bi daf koo woyofal ba jàpp ko muy béréb bu muy fayee ki ko tooñ wala béréb bu muy fayee ki ko defal lu baax lu dul jaam boo xam ne lu mu ko gaawee moo xam ci lu baax la maanaam lu neex bakkan la wala lu naqari bakkan bu fekkente ne mbugal la bu dee mbugal mu mu gaawee ci adduna mën nay wowal bu mu wowal xolam ba nga xam ne dootul sawar ci jaamu yàlla jaam bi def na loo xam ne su borom mere na ko bëgg na koo mbugal mbugal bi yowmal xiyaam la waaye nag bu gaawalee mbugal bi ba am ci lu mu ko gaawee ci adduna mooy mu wowal xolam def ci xolam bëgg adduna def ci xolam tayal jaamu yàlla def ci xolam sàggane jaamu yàlla sàggane ëllëg ba du ko fàttali ko daa dafa amoon jaam boo xam ne dafa jaamu yàlla ba tàyyi tuuti daw ndax xéewal bu mu amoon moya moya mooy ba xeetu mooy bu nekk mu def ko mu dem ci yonent ba ci jamono jooja ne ko man de suñu borom def naa ko lu nekk waaye mbugalu ma suñu borom dal di xamal ci wax yi yonent booba ne ko mbugal naa ko de waaye yëgu ko ak ak ma ko mbugal sax waaye li ma ko mbugal xamu ca dara laaj ko ndax réttiwu ma ci moom bànneexu tudd ma tudd yàlla fàttaliku ma xamal ko ne ko ndax dimbiwu ma ci moom bànneexu deeyaaleeg man mbugal naa ko de ndax loolu ma def ci moom du tàggoog moom ba tàbbal ko safara nga xam ne kon mbugal ci adduna bari na yàlla mën na jox nit xéewal gu bari wërsëg gu bari ci adduna fekk mbugal la fekk sabab ba day la muy sabab musiba naaru laahi la lu gën a gàttal boobu mën naa moom ci daanaka sax ñu laal kon tuuti ci ñaaraaj wala mu dem ci gine yi boobu ñu laaj ko ci ci question yi débat yi ah naan ñu ko ñaaraaj bi waaye ci naam masala waaw mën nañ cee boole wala wala mu ñu ñu laaj ñaara ci da naam ñu laaj mën nañu lañ ci defal bu naan mooy gën a neex sax ci ndax daanaka gannaaw moom mooy li mu fi tax a toog maanaam mooy xew-xew bi tax mu toog fii guddi guddi gi rañaan gi guddi gi rañaan gi xam ngeen ne ci guddi gii ci kazu rajab ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la ko suñu borom woo woon ba ci xawiratul xut bi mayri li an xayri wa ba bi bayri ahlu shaqaa'i indi na xont bu mag ñeel ñi nga xam ne suñu borom nam na ci ñoom yiw waaye way texee di ñu day maanaam dellu nañu ak lor ndax dañoo dem ba weddi ndax li tax jàmm moo di xiyaas addun alaxira ci adduna ndax ñaari alam la yoo xam ne dañoo wuute alamu dunia mooy adduna bii ñuy dund nga xam ne yi fi nekk dañ koy mën a gis suñu bët wala nu mën koo làmb daj ko wala nu mën koo fóon mu xeeñ nu wala nu mën koo dégg muy baat bu ñuy dégg wala nu mën koo gis ci benn xaasa lu nga xam xam muy alamul mulk nu kon ump na nag alamul malakut mooy alam bi nga xam ne mooy alamul arwaax bi ñu tuddee ruux arwaax mooy yi nga xam ne kenn mënu koo gis waxoon naa sànq ne bu fekkee ne ruux ba mu duggee ci yaram dafa am dafa sopp yaram ba mu dugg nga xam ne dañoo amul soppante dañoo amul duggante ba ruux dana wàll yaram aw meloon yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam guddi gi mi'raaj bi ah saxaaba yi ba mi'raaj bi weesu ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge fi ñu am ñu ciy werante ñii naan gént la woon gu yàlla dëggal ni ñu koy toxalee jëli ci sayyidina Muawiya sayyidatina Aïcha radiyallahu anhuma ñii ne isra bi moom rañaan gi moom yonent bi ci jëmmam moo jógee Makka alayhi salaatu wasalaam ba al baytul muqaddas waaye li ko dalee fa fa mu yéegee ci asamaan yi juróom-ñaar ba weesu sidratul muntaha ba jibril mënatu la dem moom mu dem ba xasaratul qut ñu ne loolu moom kon mooy gént la ñoom ñëpp dañoo juum ñenn ñi nga xam ne def nañ lépp muy gént njuumte la ñi nga xam ne def nañu isra bi muy gis mi yéen mi'raj bi di gént ba tey njuumte lu métti la ndax ñàkk xam biru ruux yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkoonte ne dafa waxoon ne gént la kon kenn du weddi kon ñi gëmoon ba noppi dellu gannaaw kon waa Makka ñi nga xam ne yéefar lañu duñ ne mënu la am ndax kon xam nañ ne gént moom ku ne mën na ko nit mën na gént sax gis yàlla borom tabaraka wa taala kon xam nañ ne leeral na ne du gént firnde yi mu joxe itam ci yoon wi ñett doon ci taafa garab ga di nelaw mu ubbi fekk ñu muur seen ndox mu muri ko naan ndox ma ba mu jeex mu muuraat ko ak ñi nga xamee ne yëngug alburaax tiital na seen gëléem ba mu réer moom mu tegtal leen ko ñu xàmmee baaxam ak ni mu waxee ca ëllëg sa waxtu wi ñu war a ñëw melal saaku ya ñu sëfoon ak gëléem ga jiis na mu mel ak loolu lépp wane na ne kon xam nañ ne ci jëmmam la rañaanoon gannaaw rañaan gi yéeg gi itam noonu la demee ndax dañoo xamul ne Seydina Aboubacar bi ñu ko laajee radiyallahu taala anhu dafa ne bu ko waxee kay weesu naa gëm ko ndax du Seydina Jibril la ngay jóge ca Sidratul Muntaha fii laxamati ay nañ ci xasinu bët ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko xamal ay aaya yi wàcc ay alxuraan te ma di ko gëm kon kay weesu naa mën a gëm loolu Seydina Jibril kay bu mënee ci xasinu bët jógee Sidratul Muntaha ba ak si Makka ci xasinu bët yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxul ñuy wax dëgg la melawu ko suñu borom indee ci àdduna dafa bëgg jaam ñi roy ko moo tax mu def ko muy jëmmi nit mel ni nit ñi ci zahir ci lépp waaye leneen na nga ci wet ñu xam ne gannaaw malakul mawti boo xeex ab xare amoon fa gën a sori ci penku beneen am fi gën a sori ci sow nit ñi deexaloo par ay junni ci ñaari yoon ñëpp kenn ku ci nekk dana rocc sa ruu nga xam ne kon bokk na ci melow ruu ndax malaayika ruu la bokk na ci melow ruu mën a teewaloo ci béréb yu bari naka noonu waa ajjana nga xam ne waa ajjana kenn ku ne mën nga am fukki junni kër kër gu ci nekk ñaar fukki junni soxna nekk fa ñoom ñëpp mën nga nekkandoog ñoom ci benn ci benn genn ku bët kenn ku ci nekk ci saasi nga xam ne kon sunu aalam bii nu nekk bu bu nu naxee ba nu wedd yu bari ak réer lay doon ci nun yonent bi alayhi salaatu wasalaam rooxam bëgg gi mu bëgg jëmmam benn roo bëggewu ko benn jëmm ni nga xam ne itam noonu la la roo gi nga xam ne moo ëpp doole ci roo yi ni mu duggee jëmm ji ba nga xam ne mën naa lépp loo xam ne lii malaaka mën na ko mën na lu ko raw ba bi mu demee ba fi jibril ma ne moom mu weesu ko dem loolu benn xefiinu bët bi nga xamee dañuy solo jële ci sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha te moom booba xale la fekk ko booba sax dégg nga bokk la yonent bi béréb buñ nekk xanaa kon ummu ay man la ñu mën a laaj li nga xam ne moom ummu ak ummu haani mag sidna liin boobu doomu bàyyi doomu bàyyi sidna liin doomu ndeyam la doomu bàyyam la nga xam ne moo bokkoon ak moom fi nekk ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñàkkunu koo gis benn yoon xanaa xamuñu ne loolu lépp mën naa am ci xefiinu bët yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën na cee rañaan ba li ci xew lépp xew mu dellu si ndax loolu misaal nañu ba tàyyi ay wali yoo xam ne dañuy tawee jamono bi diggante loo xam ne lii nit ki mën na fee jàng fatiha rek wala inna anzalnahu fi laylatil qadr rek wala li ilaafi qurayshin rek mu wàcce ci kaamil bi junniy yoon dagam wàllu yoo man loolu ak ci bo ñi nga xam ne sax ci ulamaahu rasmi la ñu xam ne zahir la ñuy atte nee ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñetti meloo la meloo la soppi ko bi mu nekkee ci adduna bi mel na nit ñi ak nga xam ne lu mu gis du ko xam daf koy laaj jibril jibril wax ko ak bi nga xamee ne dem na ba amee melaw malaayika nga xam ne lu lu mu gisandoon jibril ni ko jibril xamee la koy xamee ba mu dem ba weesu nga xam ne fu mu lu mu gis moo ko gën a xam jibril ba fa jibril yam moom mu weesu ko dem ñu ne ñetti melo yooyu nga xam ne melo woon na ko ñooñu ba tey loolu ahlu zahir rek ñoo koy wax ba tey yenu na am na dëgg la waaye lu ko raw nga ca gannaaw mi'raj nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni nu waxee ne ci melaw roo xam nga sayidina Moussa alayhi salaatu wasalaam bokk na ci mbooloo bi nga xam ne yonent bi jiit na jiite na leen julli ci xot ba noppi yonent bi salaatu wasalaam du mu fa jógee romb na ko ci bàmmeelam muy julli teewul mu rombaat koy ci asamaan ci ñeenteel loolu wane na ne roo mën na teewandoo ci béréb yu bari bari yonent bi alayhi salaatu wasalaam rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu demee ba xadiratul quds nga xam ne mel ni fi mu si faa dem àgg ci xaaba xaw seen nga xam ne fa lañ ko joxee julli teewul jibril jàngal ko julli fii ci kaw suuf jàngal ko njàpp jàngal ko waxtu xamal ko waxtu muxtaar ak waxtu daruur yi fa mu tàmbalee bu ci nekk ak fa mu yem xamal ko na muy jàppee xamal ko it na muy jullee te fekk ne fañ ko ko joxe woon waaye booba amagul ndigalal jox ko ko bokkul ak jox ko sant ko ko muy farata ci moom mu war koo jëfe loolu ndax lépp loo xam ne li sharia la sidna jibril moo ko jaarale ci suñu borom moo ko jaarale sidna jibril mu indil ko yonent bi mu ne day sidna jibril alayhi salaatu wasalaam na muy jëlee mënu lay jëlee ci suñu borom directement mën na jëlee ci lawhul mahfuz waaye li nga xam ne moom lay jëlee ci lawhul mahfuz la ko indi ci lawhul mahfuz ci alxaqiqatul muhammadiya lay jógee soog a ñëw lawhul mahfuz ndax li nga xamee ne rek yooyu yëpp waxtaan nañ ko ba tàyyi ci ay yoon moo di alquran wàcc yi mu wàcc ñeenti wàcc yi mu wàcc yëpp wane na ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mën naa jàngal sidna jibril ay junni junni at ci xam-xamam te lenn ci ay xam-xamam rek bi nga xamee ne Cheikh Ahmad Muhammad Busiri bi mu wax naan lenn wa min ulumika ilma la yoo qalam lenn la ci sa say xam-xam xalima gi ak alluwa ja nga xam ne mooy bind lu suñu borom nar a dogal nga xam ne ci umul kitaab rek lay jóge nga xam ne benn mbindeef xamul lu mu doon ni ñu waxee woon tànk fi la amaa yi nga xam ne suxuun yi dara ràññikoo gu ci amagul juróom-ñaari melo yi benn luy war a am amagu ko boo fa mel ni mbindeef xamul dafay xew lu dul suñu borom tabaraka wa taala bu fa jógee ci umul kitaab bi ba ñëw fii imaamin mubini muy xalima gi am na jaam yoo xam ne mën nañoo xam ne foofu secret yi ñeneen ñi bala ñu ko xam ñu bind ko ci lawhul mahfuz sayyidina jibril alayhi salaatu wasalaam moom ci boppam kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci moom lay jëlee xam-xam soog a dellu si jaar fa mu war a jaar soog koo xamalati ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa amee loo xam ne lii li mu nekkee ci adduna ngir mën a jiite jaam ñi ndax suñu borom fekkoon na yonent bi mën na ñëw xaqiqatul muhammadiyya kon suñu borom mën a yónni malaaka te malaaka bu ko suñu borom yónni woon ci jaam ñi jaam ñi duñ ko mën a raw duñ ko mën a jege duñ ko mën a duñ mën a la muy jëf duñ ko mën a jëf duñ mën a wax ak moom rawatina nag Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne saxaa malaayika yi amuñu kàttanu mën a dékku gis dëgg te gis room ak sa karam malaayika yi mënuñu ko alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne kon nee na damay nelaw ci mbeskanal kaaba gi am yàgg ñu yëngal ma yeema ma jóg xool gisuma dara ma tëddaat ba nelawaat ñu ñëwati yeema ma yeewu xool ndeyjoor ak càmmoñ sama gannaaw fépp gisuma kenn ma dellu tëddaat ba ci ñetteelu yoon wa Seydina Jibril jàpp ci mbaggam yëkkati ko ba mu jóg mu won ko alburaax kon won na ne yoon bu ci nekk dafa yeewu kon sore naag gént alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne nag dem na ci mi'raaj yéeg boobu lam fa jëlee ci jë- jaam ñi war war koo jëriñoo kenn xamul nu mu toll ndax benn tàmbalee ci ne ñetti xam-xam yi nga xam ne jox nañ ko ko fa benn xam-xam bu njëkk bi moo di alquran ak lu ci aju nga xam nga li ulama wu yëpp bind liñ bind lépp lépp lépp lépp sharaa la ñeel xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam xadis yi yonente bi wax yëpp yëpp yëpp sharaa la ci alquran li nga xam ne nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci alquran ak li nga xam ne xokkamaa wu bind nañ ko yëpp lenn lay benn maanaa la ci maanaa yi nga xam ne benn bu ci nekk xaraf alquran daf ko ëmb ndax dañu wax ne waxi suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne ahlu sunnat noonu lañ koy jàngalee du ay xaraf du ay baat du it amulul daggante loolu ahlu sunnat yi wax bi ñuy waranteeg al mu'tazila waaye dafay ahlul xaqiqa ñoom nee ñu xaraf ci boppam du lu sosu kon naka jekk dafa amoon kon waxi suñu borom tabaraka wa taala muy ñëwee ci alquran wàcc te ne suñ goo xam ne bokkul ak wàcce ca maqaamam nekkoon waaye suñu borom tabaraka wa taala dafa yërëm jaam ñi ba fekk si leen ci wax ñi ñuy wax mu waxe ca noonu waaye li nga xam ne moo moom la ëmb ci sharia ci loo xam ne moom la jaam ñi war a jëfe rek la ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamle gannaaw al loola nag farata la ci moom mu xamle te muy xam-xam bi nga xam ne faw war na ci moom mu xamle ko mu am xam-xam boo xam ne xaraam na mu xamal ko benn mbindeef kooku moom moom sallallahu alayhi wasallam rek ko jagoo jibril xamu ko mikaayil xamu ko israel xamu ko israfil xamu ko benn jaam xamu ko loolu suñu borom tabaraka wa taala bu fekkente ne jógee nañ xam nga ne sidratul muntaha la sidna jibril mën a yem kursi yu moo ëmb asamaanee juróom-ñaar gannaaw kursi yu araf ñëw ëmbati lépp araf ci boppam juróom-ñaar fukki xijaab wërati na ko te xujub yooyu da nga koy da ngay boo ko xottee ba mu jeex ngay soog a àgg ci fi ñu tuddee alamul raqa alamul raqa moom it da ngay romb juróom-ñaar fukki junni xijaab weesu ko ba xotti ko soog a àgg li ñuy wax ak tawqul axdar taw diggante ak tawqul axdar ak alamul raqa diggante ak alamul raqa ak araf lépp ay malaayika la feese yoo xam ne xamuñu suñu borom ndax bind na Seydina Jibril wala bind ko malaayika yooyu nga xam ne benn bu ci nekk ay maqaama yonent la ñu am wala ñu yées ko lu néew ñoom ñëpp seen xam-xam ak la ñu war a xam te xamuñu ko la ñu xamagul tabar koo xam ne ak li ñu xam lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal nañ ko ko ci guddi googu mu te loolu lenn la ci li nga xam ne mën na koo xamal jaam bu ko sopp mooy xam-xam bi nga xam ne dañ koo tànnloo bu gisee ku ci yelloo dara te mu te bu ko xamee mu jëriñ ko te mu sopp ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu xamal ko ko xam-xam bi nga xam nag araam na mu xamal ko benn mbindeef moom wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami ilmu lawhi wal qalami soree na ak lenn ci xam-xam yo xam-xam yooyu kon nga xam ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne laylatul mi'raj jox nañ ko ci xéewal goo xam ne géej la goo xam ne buñ ko seetee géej goo xam ne mboolem li yàlla bind maa ngi wax la ca gannaaw aalamu raqa ak la ca gannaaw tawbul axdar ñooñu ñëpp ak seen i jaamu ak seen i xam-xam buñ ko buñ ko boolee mu di benn toq ndox ci kanamu géej ca la ñu xamal yonente bi sallallahu alayhi wasallam foofa te loolu génn géej la ci ay géejam yi nga xam ne moom la xam ndax alxaqiqatul muhammadiya mooy sirru bi nga xam ne amul benn jaam boo xam ne xam nga ko wa ndax moom la sayidna abu yasid bistami di wax naan doon naa sàkkoo jéem a xam alxaqiqatul muhammadiya ba mu def sama digganteeg moom juróom-ñaar fukki junniy kiiraay yoo xam ne benn bu ma si jege woon ni karaw di seeyee ci safara ci furna bu boy noona laa ciy seeyee moom la moo taxoon itam uwaysul qarani di wax sidna ali nag sidna omar naan leen gisu leen ci rasulullahi lu dul takk ndoor ba ñu ne ko ba doomu abu xaafa ndax maanaam ba abu bakar sax mu ne ba abu bakar sax gisul ci moom lu dul takk ndoor ba ñu ne ko ndax yow ci sa bopp kon gis nga alxaqiqatul muhammadiya mu ne alxaqiqatul muhammadiya lott naa ci gis benn dokku ndox ci ay géejam ci géej gi ci gën a tuuti kon alxaqiqatul muhammadiya boobu nga xam ne lu jógee suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne day nekk izzatul jalaali ak izzatul ak ak qudra day nekk kattan goo xam ne benn bépp ndox bu ci gën a néew bu ko indi woon ci adduna lépp day daal di lépp day daal di seey ba nga xam ne dara dootu am amul benn jaam bu ci mën a dégg dara sidna jibril kon mënula jëlee ci suñu borom tabaraka wa taala dara ndax dara jaam ak bu ci xam-xam kon day jaar ci alxaqiqatul muhammadiya moo koy seggaat ba wayasal ko ba bu fa jógee soog a jaar ci leeri malaayika yi ak leeri yonante yi ñu mën koo xam mu soog a ñëw bopp ci adduna sidna jibril soog ko indi nga xam ne kon sidna jibril dafay maanaam secrétaire boo xam ne dañ koy yónni di ko bindloo ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk gi mu nekk waa adduna ah bindoo bind mi nga xam ne noonu la adduna bi bindoo mu mel ni nit ñi ngir mën leen a leeralal ngir ñu mën koo roy ngir ñu mën a xam ni mu dundee ci adduna ak ni mu nu digale te lépp lu muy def njëkk koo def ñu topp ci moom gis ko buy julli nga xam ne day julli ñu mën a xam li muy jullee bu dee sëgg nu mën a sëgg muy siggi nu mën a sigg muy tari nu mën a tari muy teewlu nu mën a teewlu ba lépp lu muy def nu mën ko cee roy bañ ne laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun hasana nu gis ne wàcce na boppam ba nga xam ne jaam bi bi nga xam ne ci jaam ñi la bokk ci jaam ñi nga xam ne nit ñi dañ àdduna amatu naa ci la li leen di dal moom mu wàcc ba wan mu dal ba nga xam ne war na mbaam war na gëleem deqatalu ànd ak gëleem gi daanu ci suuf war na mbaam daanu ñetti yoon war na mbaam ne Seydina Abu Hurayra daal di tàllal tànkam ni Seydina Abu Hurayra dëggal ci sama tànk ngir yéeg ci mbaam mi da laal Seydina Abu Hurayra teg tànkam ci kii bi jàppal ci yonent bi ñu ànd ne xaraf ci suuf daanu yonent bi jógaat yéegati ci mbaam mi tàllal ko tànkam ni ca dëgg ci mu dëgg ca ñu ànd daanu ba ca ñetteel ba mu ne ko tàllale tànk mu ne ko dëggal bi mu ne ko yàlla bu ma la daaneel ñetti yoon xam ne sallallahu alayhi wa sallam ci wàccam ak woyafam ak yërëm jaam yi ay xaj ñu ñu ñu jàpp ko julli na tëgg jiit fett ko ba bi mu sëlmalee geesu ne suñu borom rëbb na jiit xamul ab yonent xamul kuy julli nga xam ne kon ni ñu waxee ne yonent dafay wàcc wàllu yu day yéeg yonent li mu gën a niroog bindee fii ba ñu jàng yi mën koo roy mu gën a néewal ay kéemaanam yi nga xam ne mooy tax mu sore jaam bi yonent boobu moo gën a mat sallallahu alayhi wa sallam li tax ñu ne ko wa innaka la ala xuluqin azimin ak maqaama yu kawe yu foor yu tedd yooyu yëpp nga xam ne benn jaam mënul la jege la ci gën a néew ci gannaaw ay kiiraay yu dul jeex teewul muy nit koo xam ne dafay ñaw aw dàllam di deeñ tubayam di dox ak tànkam fu mu fekk mbooloo du nangu ñu jóg dogale ko day toog fu mu fekk jataay bu mu mën a toog rek fa lay toog rañaan ki nga xam ne nag moom la rañaan ba muy dem dafa mel na que nit koo xam ne si nga dëkkoon ba xam ko miin ko da nga fay dellu ni nga fay sawar a delloo moo tax bu mu demee ba nekk Paba Fawcet ni mooy bu mu jugee xadra hadratul qudus mu ne raaytu rabbi fi surati shabbin gis naa sama borom tabaraka wa taala mu amee melaw xale lu góor bu rafet mu ne suñu borom tabaraka wa taala ne ma fa fii ma yaxtasimul malaul ala ana waa malaul ala ana lu ñuy werante mu ne ko suñu borom moo ko xam ne mu dellu ko ko laaj mu ne ko suñu borom moo ko xam mu fab loxoom teg ko ci sama dënd bi sama diggante ñaari ween yi ba teg ko ci sama gannaaw ba may yëg seddaayu baaraama mi ci sama diggante ñaari ween yi ma daal di xam xam xam ba ca kaw ak ba ca suuf nga xam ne kon suñu borom li mu jox jaam ñi wala maa aarifoona billahi ne ñu xam-xama ci ëpp doole ndax bu la wuññilee kiiraay yi nga xam ne yenn secret yi boo ko gisee gis gi nga koy gis xam gi nga koy xam daf lay dal di raxas ba nga xam ne dootoo mën a def dara lu naqar yàlla li nga xam ne noonu nga tëlee fabe sa loxo teg ko ci kaw asamaan noonu ngay tëlee defee lu naqar yàlla nga xam ne da ngay dal di jàngee ak sirul masuun te ak sirul masuun waxtu woo ci tegee sa bët bët bi suñu borom bindagul dara moom tey ji ngay yemale nga xam ne dañ lay ñoril lépp luy xijaabu makaan ak zaman amul jamono lu xewoon te junni at ak luy bëgg a xew yi buñ fi amatee junni at ak lu teew tey jii nga yemale béréb yi itam ba gën a sori ci béréb yi ak li nga ji mooy yem képp ci yow moo tax sëriñ bi nee na allamani maa kaana qabla al xalqi man kaana li bi karamin wa fett nga xam ne kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci guddi ñaaraaj dafa indil qualité bu mag da mag soppe ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege ñi nga xam ne ñoo ko gën a sopp ñi nga xam ne ñooy li nga xam ne ñoom la gën a jëf lañ teel te mooy bi nga xam ne ñu yàlla tànn ci jaam yi ñu bokk ca tànn bu njëkk ba wax naa ne tànn bu njëkk ba mooy malaayika yonent yi ak malaayika yi ak asaabirul aqtaab waxu sax siddiqoona yëpp bokkuñu def mooy ñi nga xam ne ñoom la suñu borom jagleel al mahabbatul uula boobee nga xam ne ku ko suñu borom ko suñu borom jox benn bopp ba gën a néew da ngay daal di amee meloo woo xam ne maanaam da ngay jéggi jéggi yàlla maanaam nopp yàlla ngay jéggee bët yàlla ngay gisee loxo yàlla ngay jëfee tànk yàlla ngay doxal. misaal nañu ko ba dafa am ñu jàng astronomie di jàng astrologie am na astrologue boo xam ne nee na waxtu ñuy jàngee dëgg dëgg dëgg astrologie ba xam ko astronomie yaa sëriñ di jeexitale ci suuf si ak ci anaat yi ñuy gën a jeexital bu ñu juddoo rek ñu xam. suñu juddoo ak saa si ak waxtu yi daal daal di mën a déterminé suñuy jaari ak na muy meli ak la muy amee la muy ñàkk lépp. ne kon lu gën a juddu ci saa soo xam ne day tax aji war a fexe lay doon maanaam ko am chance lay doon ak jamono xam ne am ñàkk lay doon ku ñàkk lay doon ak jamono yi ku ñàkk chance lay doon ak jamono yoo xam ne aw mu sonn ak jamono yoo xam ne coonoom dana néew. waaye nag du loolu rek mooy def taasir maanaam mooy jeexital ci nit ki am na yeneen i awaat yoo xam ne dana jeexital itam ci dundub nit ki benn milieu bi ci maanaam bërëb bi nga xam ne ci la nit ki juddoo ak ñi ko yar ndax tarbiya dafay jëriñ ci nit loo xam ne lu dul tarbiya lu dul yar mënu ko caa jëriñ bërëb bi mu nekk itam day def taasir day influer ci ak dundam ak ci aqaliyaam ak ci definam chance bu fekkee ne am na yu aju yoo xam ne ajuwul yooya ajuwul ci nammeelu doomu aadama ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su borom noppi na pare na ci yii ñeent yii te ci wax na ko ci misaal bi naan radiyallahu ta'ala anhu wa faraxal mawlaa neer benn ajal xal suñu waxul suñu wërëg suñu suñu ajal mu ne ay suñu borom pare na ci ba noppi suñu borom li muy def ci jaam ñi day yónni malaaka malaaka yi ci junudullahi la bokk junudullahi dañoo bari askar yi ci junudullahi maanaam ci kuréeli suñu borom yi ci ay soldaaram ci ay liggéeykatam ci ay umriyam la ñu bokk malaayka yi niñ ci bokke ñi la ci suuf si bokke ñi la ci jant bi bokke ñi la ci biddew yi bokke gis ngeen ne nit réew mi mu dëkk waxuma nit ñi muy waxal ak li muy lekk li muy liggéeyee waaye réew jant bi dana jeexital ci moom ni nga gisee ne ñi dëkk ci zone bi ñu nekk nit ñi ñuy nuule da nga xam ne réew jant bi ultraviolets yi nga xam ne ñun dañ koo recevoir directement bu ko defee suñuy yaram bi di pigmenté pigmentation yu bari moo nuy nuure dana jeexital ci ñun ci suñu ay melo ak suñuy xalaat ak suñuy jikkoo dana jeexital ak suñu kanam suñu bakkan ak suñuy bët dana jeexital ci suñu karaw ak suñu bopp dana jeexital ci yu bari xam ne kon doomu aadama yi jeexital ci moom bari na trop gis ngeen kon jeexi ci jant bi ñu ko weddi jeexi ci weer bi yu jegee ngoog jeexi bi ñu nga dëkkal jeexi bi li ngay lekk jeexi bi ñi ngay waxal jeexi bi ñi lay yar jeexi bi ñi lay jur yooyu yëpp a ngi ci liggéeyu mbay man yàgg nañ ko wax liggéeyu mbay buñ koy tëral lu dul ci yàlla ku liggéey mu fay la yàlla liggéey bi fay gi muy fay nit ki mën na ko koo fay ci jëmam mën na koo fay ci doomam mën na ko koo fay ci sëtam mën na ko koo fay itam ci beneen jàmbur boo xam ne daf ko koy tàggatal bu ñëw di ko liggéeyal wala di ko fa defal kon mbay ji nga xam ne dafa nangu liggéey xam nga nit ki aqliyaam nit ki buy juddu gis ngeen ne ay seex sax dañuy faw mu am lu ñu wuute ñaar ñu bokk dee bàyyi dañuy wuute ndax awaamir yu bari yi ma waxoon ci awaamir yi jamono ak ci biddiw ak ci xew-xew ak ci ngelaw ak ci taxalubaatul jëw bi ak yooyu yëpp day jeexital xam ngeen ne kon jigéen ci gannaaw bu gisee lu mu bëgg bu ëmbee bu gisee lu mu bëgg te mosu ko dana jeexital ci moom xam ngeen ne kon la muy def moom it mën na jeexital ci moom kon jëf yu baax yi muy def mën na jeexital ci moom jëf yu bon yi muy def mën na jeexital jëf yu bon nag mën na jeexital joxe bonheur ci nit ki te fekk na bonheur boobu ko jëmale bu baax loolu mën naa am ci li yeewu ñu kon liggéeyu moom lu naqaree déterminé la kenn mënu koo dàq nag ndax ñaar yii yàlla day fay ñaareel bi jeexit diggante bi muy juddoo diggante bi muy sotoo xaale bi nga xam ne ci la xol yaay bi nekk daf ciy jeexital loolu kenn mënu ko dàq am na nag fu mu tegu mag ñi ci tëgg li ko dañ ko tegoon maanaam ci faral koo ji waaye nag lu ko jëral loo xam ne da nga dem ci indi kaa boo xam ne doo mën mukk ne lii liggéeyu lay raw fekk nag la ko waral ba tey mën nga ci duy dundub liggéey di circonstance de xew-xew kon nag li ci li ñu mën a sabab lu doomu aadama moom dafa war a sabab lu lu baax rek sabab lu lu ko boppam sabab lu lu ko njabootam kon jigéen ji moom war na jéem a def lu baax am ngërëmal ci mu nekkal ndax yi ci nekk ndax dafa bari benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen wax boo xamee ne julli na juróomam woor weeru kooram wattu boppam bu keroogee ñu ubbil ko juróom ñetti bunti àjjana yëpp bu ko ci neexalee dugg kon liggéeyu day ba tey dana feeñ foofu ci bopp liggéeyu waajur day feeñ ci doom muy nga muy bàyyi dañ ci tegtal yu bari yoo xam ne bu ko fi doon lim gën a bari boo jàngee suuratu kersi wa amal xulaamu daan aboobu mi sax dinaa yokk ba xel borom ah ak ba arab ay arab ay ba babal ci daru tan dafa la bañu ci ba ci gana tax ko gënu ma kan abu ma sagar bara da ko ñu doxa asu dooma way sax ya ko dooma ak ay jo ci tam sur nit ñi alladina amru wa tabaatu dunyatu bi iman alaqna bil dunyati ma aratna min amalin min shay kon jeexi liggéey waagu ak jëfam ak xolam ak meloom dana jeexit bu dee nag exception dana am lu mel ne que kan wuñ ci yeneen kan aan lank ba lakk da tuufaan weddi aw yoonam xam nga loolu waaye lu ak exception la yoo xam ne maanaam li wax ni kulli qaida istisna kon li kulli jawaadin ka boti wa li kulli saaribin na boti ila axiri ila axiri li bee daal noonu lañ ko mën a déggee
laaj bi ñu jëm moo di ni ci sama xam-xam bu gàtt dafa am lu ma seetlu te am na conférence yu bari yoo xamante ne bi laaj naa leen ko waaye aw ma ci satisfaction ndax damaa gis ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu suñu borom bind te moo ko ci gën a kon ma yaakaar ni xëy na du may keneen lu mu mayul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama gis suñu sang bi ci Touba dañ ko ba tudde boppam Xaadimu Rasul ci Ahmadu Bamba te yonent boobu mu doon topp di sallallahu alayhi wa sallam bi mu jëflanteeg noonu yi jàpp nañu ko ndax defe naa ne ci xeex yi mu xeex xaw ma xatootu ahud la xaw ma badar du badar sax ahud la yaakaar naa ni jam nañ ko fa ba génne ko ratam ba saxaaba yi dañoo daw bi nga xamante ni xatam nañ ko Makka ba muy dem tawit it defe naa ni sànni nañ koy xeer ba deretam génn ba ñu wax ni jënd yi dañ ko yërëmul te moom defe naa ne lu yàlla bind moo ko ci gën a suñu jàmbaar ji ci Tuuba nag ñu jële ko fi pendant sept ans sëriñ Moussa Ka wax na ni nas day waxal aw nit danaa nas liñ ma teg li mu suratullah waane dañ teg sëriñ Tuuba nas nañ ko ñaar téeméeri nattu ak juróom-ñett fukki nattu ak juróom yoo xam ni benn bu ci nekk yóbbu na fakkanu doomu aadama te mënuluñ ko dara mu bëgg nag ki nga xamante ne bii bañ na ko ba tuddee boppam xaadimu rasul naka la def ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu ñu defoon nañ ko mënal ko moom mii di lu jam lu muy liggéey kaatu yonente bi dama ci noonu diiru juróom-ñaari at dellu ci Tuuba te mënuluñ ko dara ñaareelu laaj bi mooy dama bëggoon ku ma leeralal leeru yeneen naka lay génn ci leeru sunu borom ak leeru ñi ci def naka lay génn ci leeru yeneen maa ngi lay sant si léegi. waaw gis nga kéemaan yàlla moom dañu ne ñuy dund suñu ñaari maa lay dund suñu baax yi mën nga fekk ci dex gi loo xam ne da nga dem ci géej gi ko ëpp te doo ko fa fekk suñu borom nag nag ay jagle mais ñu yomb la xiyaan yoon yàlla Moussa comme ni sax sikkim foofu rek dafa jagleel te yeneen yoon te keneen am na yoon bu ko féete kaw te bu ferogee du am sikkim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sidna Omar du dugg ci mbedd mu mbedd bu ñu suubu te iblis teewul génn te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dalu ko te sidna Omar loolu dal ko nga gis ne kon ñu ne sabab yomal xiyaan ñu ne kon jàmm bu jubbu iblis sax caxaan la bu dul yonent yàlla Isa alayhi salaatu wa salaam da nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ñoom ñëpp te loolu ko nga xam ne kon ñu ne yujudu fil maqbuli maa laa yujudu fil faadili daañu fekk ci ki ñu gën loo xam ne nii duñ ko gis ca ca ko gën bu leen yëpp loo jagle yooyu nga xam ne dafa am ba noppi nga xam ne mën naa jur gi lu nekk dafa am itam ay sabab yoo xam ne itam sabab yooyu lu war a am la te mun la ñàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon naa ne sànq ne dañ ne yonent day wàcc yoon yi day ñëw yonent wàcc ku mu gën a wàcc gën a niroog nit ñi ngir jàmm ñi mën koo roy ngir mu gën a niroog jàmm ñi noonu la gën a mate ñu ne yonent bi nga xam ne moo mën a fexe ba jàmm ñi këm tëbalewul ci kéemaan yi day waar moo gën a foor yonent bi nga xam ne dafa dimbandikoo kéemaan ba tax nit ñi gëm ndax booba kàttanu yàllaa wàllu si yàllaa ko wallu si kee nga xam ne mat na mat boo xam ne soxlawul wallu te mu mën a am la muy wut ba tey moo gën a mat yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ma ko waxee woon sànq ne ci wàccam ba ñu ko wa innaka la'alaa xuluqin aziim mën a leen doon na julli ji fett ko waaye na mbaam daanu wax na gëjëm daanu kon dam mën nañu bënul ba Uhud sànni nañ koy doj ba karbat yi mu soloon deret bi di fettax di dal ci mbëgg yi dañu jógee saa yi ñu xiir ko bopp yi ak borom xel yi gàtt yi ak saay saay si ñu di ko sànni xeer di ko xam suuf di ko yuuxu ba mu ñag gi ak soor dugg ca biir ñu ngi ko ñu ngi ko dégg loolu lépp mat bi mu mat ak jox gi mu jox boromam lépp nga xam ne su sañoon suñ toll ci ci gën a foor ci adduna lañ koy lañ koy teg ba nga xam ne bi ñu fiy jóge dafa bëgg a yóbbaale xeetam lépp métti bu ndee sufraat ci anam googu la defee loolu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu nee na baana li kulli man lahu wilaaya taw min rabbil alamin aaya képp koo xam ne am na wilaaya bi ñu melale iman gu suñu kéemaan nag mu def kéemaan du taw de yéen teel ak Moussa alayhi salaatu wasalaam lu ko suñu borom di seen moo leen ko jibril mu dem ba xajaral xot si si mu si suuf si fi mu nekk la ko dal di feeñoo ci leer bu mag ne ko ina ni ana laahu man maay sa borom bu ñu taxawal su mi say dàll yaa ngi ci kur mu tedd ni dal di ko yónni ci saasi te si naa jibril te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tudd xalwa ci xaaru xira ay at at mu ci nekk weeru koor bu ñëwee mu dem dugg ba jëm ci la njëkk a gis si naa jibril yonent yàlla Moussa jaarewul foofu yëpp su ko suñu borom feeñoo ci boppam tabaraka wa taala di siy naa jublu sax suñu borom ci boppam moo ko feeñal foofu boppam tabaraka wa taala daan koy yónni ci saa si jox ko ñaari baaru jëm sànni lekk bu sànni lekk muy jaan bi sànni sa loxo mu taalal loxo bi kenn mënatu la fekk mu raw jant bi gën koo leer ci saa si nga xam ne kon suñu borom lu ko soob rek lay def ak na mu ko soobee ak waxtu mu ko soobee ak fa mu ko ko neexee kon ay créances yoo xam mu def ci li def feelee ajuwul ci ngëneel ajuwul ci lenn ci coobareem dong la aju da nga gis jaam boo xam ne bii amul fattu jaam boo xam ne bii su borom defal na ko fattu mu jàlloon arasa kursi di di liir la ca law ful mahfuz jaam bu mu dajeel gis la ñu tuddi ci sëb boo dee aji texe boo dul aji texe jaam bu mu dajeel xam li la def ci fan xam nooy mel ëllëg nga gis jaam boo xam ne suñu borom nëbb na ko kumpa yi xamul ci yooyu dara te gën koo jege yàlla fuuf kon suñu borom mbiram mbiram mbiram su ko takk ci dara dara dara dara yaa nga bambara bi laa taalaar wu dafa amoon liggéey bu mu tim boo xam ne dafa ñeente woon ak boromam te liggéey ba jeexul kon dara mënu la xewaat ci diggante bi xaw mu àggale liggéey ndax ba suñu borom tabaraka wa taala yéree xol yëpp mu gis moom xolam gënte bopp yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu jagleel ko nekk xaadimu rasul muy marta boo xam ne beneen wàll yi mosu ko woote parce que ñu fi woote ne ak ismul azam la azam am nañ ko ñu fi woote ne xutbul xawsu lañu am ñu fi woote ñu bokk ci amul awliya yi nga xam ne ñooy nan ci jamono bu nekk ñuy woote xatmul wilaaya ñuy woote leneen lu mu doon xaadimu rasul kenn mosu ko woote moom nag mu ne as naa xajili ma suñu borom def mais ci gën a yëkkati ko ci jëm suñu liggéey yéen ci liggéey pour que aarif saaxil xajili jaale ni as naa xajili ni man loo fadlu yàlla ma tax ni ko ko demee mu fasanteeg boromam jaayanteeg moom la mu jaayanteeg moom loola mësagul diggante bi benn nit jaamu yàlla mënu fee jël bakkanam ca loolu mu fasante woon ak boromam fas yu xaw ma ak. ñi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dama nañu bayam luy médaille bu gën a kawe ci médaille yi ñu xaañ ko mbaxanam wëñ ñi nga xam ne moom la soloon ci bopp bi ni ko way xare yi di defee ñu door ko ci bët ba mbaxana mi màtt ci jëfin jaaro bi ba nga xam ni waa ji ko doon màtt di ko jëndi bëtam dafa dam deret ji sottiku li ñu ko gën a raxas deret ji gën a sottiku ba sëy def na Fatima dafa taal njës bu nga xam ne moom la amee woon ab doom ba tay ko ci deret ji soog a àq te lépp ay garaat la ak i médaille ëllëg yoo xam ne ñu dana ko sigareeroo ca kanamu suñu borom tabaraka wa taala ci kanamu jaam yëpp bu ko roogee bu suñu borom tabaraka wa taala di jàng surat rahmaani bu ko roogee la ñuy wane daraja yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ko roogee suñu borom dootul gën a tëb ba xàqtaay tabaraka wa taala xaadimu rasul alayhi salaam radiallahu taala anhu bi nga xamee ne suñu borom jagleel na ko maqaamu moomu mu war a liggéeyal yonente bi ba nga xam ne lépp lu yàlla bind def koy gërëm topp ko ba gis yi ak saa yi ak jamono yi ñëw di ko fekk xarit muy xutba lépp lu yàlla bind ci kaw suuf day xutba jëm yoon li mu jaar li ñuy wax itinéraire yoon la woo xam ne dañ ko koo taxañal ne xabaritu tariqal xaw waxtan ci daa ini ëne qad xabal xaajaat gënaw beneen bëtt taxañ bi ko ko taxañal ba mu jeexal yoon bi li taxañ bi mat mat mat kii bu daloon kenn ci jaam yu baax nit boole na ko dal na ko fekk nag doxin yi xaw mu wuute benn nit yàlla ndax dañu ne naanukaay yi dañoo wuute wuute bu doy waar dañ ne roo yoon yi jëm ci suñu borom tabaraka taala mi ngi doon leen nooyu bindee fii li nooyu bindee fii bare noonu la bare mën na beneen beneen yoon yi ñëpp yoon wu mu jaare waaye yoon wu mu jaare mooy yoonu naqar di yoonu fitna di yoonu diis di yoonu njàqare di yoonu jaaxle mu muñ loolu lépp loolu nag ko suñu borom teg kon nit ki boo jaaree ci yoon bu bëgg li mu jaar du ngeen nuroo yi ngeen di dajeel yonent yi yonent bu nekk ak yoon wa mu jaar ak la mu dajeel ak la mu gis ba àgg Sëñ Tuubaa dafa jaar ci yoon boo xam ne keneen jaarute woon moo ci njëkk a jaar moo di nekk xaadimu rasulillah moo waral yoon woowu mu jaar melo yi yoon wu melo ak moom ci boppam aw meloom ak ay fakkam ñu rek fakk ñeneen ñi kenn ku nekk ak kenn ku nekk ko nekk ñaari yi laaj yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom ba mu gisatul dara ñu ne ko booba fu mu nekkoon mu ne kaane si ama yi mu ne kañ si ama ñu ko waxoon ca tàmbali ba suñu borom booba bindu bindu dara waaye li mu war a bind lépp xam na ko man la waaye màggal bi ak ñëweetam bi ak tànk na moom gerte ak sañam bi yooyu loolu loolu fiir na ba nanguwul dara mën a am dara am ci yàlla di am leneen di am danaa gis tagoom gis ak baaxam gis laa biram gis ak yërmandeem bi tax mu war a bind mu ngi doon ay suur nga xam ne mu nga woon ca xam-xamu yàlla ba nit mu feneen di indi ci dara te amaa ko tax mu war a bind lu am lenn amul dara amul lu dul suñu borom tabaraka wa taala bu ñu naree bind ñu xam ci leeram tabaraka wa taala foofu ulama yi am nañ ci ñaari wax ñu ne ñu leer bu bindoon la ñu ne leeru boppam la tabaraka wa taala bu dee leer bu bindoon bu dee leeru boppam tabaraka wa taala bu ñu ci mën a doon suñu borom lépp innama amru idaa araada shay'an an yaqoola lahu kun daf naan amal rek loolu am bu fekkee ne nee na leeram gi kun amal leen dara te noonu noonu la ko waxee dañuy dafa tibb ci leeram gi ne ko kun muhammadan al haqiqatu muhammadiyya daal di sotu te leneen soteegul kon lu ne am na cosaan yonent bi sa sa waxtu gannaaw leeru yàlla mooy cosaanu lépp lu am lépp lu am leeru cosaanam te lu mu cosaanam mooy leeram waaye balaa danaa am am na fu muy njëkk a jaar ndax su borom sellam gi ak màggam gi ak kaweem gi xawul waasita am diggante ni nga xamee ne benn jaam mënu la dikku lay jóge directement ci yàlla te jaarul ci alxaq moom bi naka ñu seenu am am lépp lu yàlla bind mënul am te jaarul ci am Muhammad ci leeram ndax ci leeru yàlla Muhammad dong mooy si jóge alayhi salaatu wasalaam leeram nag ci lay yeneen ci def maanaam mooy seen jotaan ndax ci la bind malaayika yi ci lañ bind yarante yi ci lañ bind siddiqoon yi ak suhadaa yi bind ci ñeneen yi ak aarifoon yi ak yi ci def amma nan la ko suñu borom di bindee jaam la na ci xam ko kun lañ ci xam innama am bu idaaraat seen lépp lu mu gannaaw moom suñu borom boppam ci li mu fini farañ ci mën a yem moo di lépp lu mu nam mu def naan loola kun rek loola daal di nekk suñu borom ba mu tibbee ci leeram ne ko kun muhammadan mu nekk muhammad noonu la tibbee ci leeru muhammad alayhi salaatu wasalaam ne yonent yi nañu nekk yonent yi nekk malaayka yi dañu nekk malaayka yi nekk asamaan yi juróom-ñaar ajjana safara suufu juróom-ñaar aras kursi laf mahfuz alamu raqa tawqul axdar ba lépp di am ni nga xam ni boo jiyee gerte ci suuf bàq bi tooy na muy fett di juddu di màgg loolu ci kattanu suñu borom loolee noonu nga xamee ne ku ne ko waral ndax lépp lu am ci adduna am na ruux ruux ñooy wut ndax lépp lu ci adduna loola day sabbaa ak lu mu mën a doon mu ngi sab mu ngi sabbaa li sabbu lahu samaawaatu sab'u wal ardu man fihinna lépp asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar ak li ci diggante bi lépp day sabbaa wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi lépp loolu mu ngi sabbaa suñu borom tabaraka wa taala ruux yooyu ñu am nag nga xam ne ruux yaa tax ñuy mën a sabbaa suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne am na ci lenn ci mahabbatullahi yoo xam ne mu ngi dal ca loola ca yooyale loolu moo tax lépp loo xam ne lii lu war a judd luy judd la ci ak ruux gi mu am di dégg kun gi suñu borom wax di am ci matériel nga xam ne duñ caa gis mooy amal bopp wala muy am ci sago wala muy xam na mu amee day daal di am ci loo xam ne ci xam-xamu suñu bopp akul na menam dong la aju ajuwul ci leneen juróom-ñaari melo yi muy yi lii lépp di amee jamono ji muy ñëw na muy mel na muy toll fa muy amee bu dee ci yëfu ngay jëpp ci yëfu càmmoñ bu dee melaw dafa xaw xam dafa weexam dafa ñuul li muy sax ci jamono jógee fi ak la muy jëfe melo yooyu yëpp la kun di indiwaale loola dal di nekk noonu la nga suñu borom tabaraka wa taala dal di jëlee ci leeram comme leeru yan bisalal damay jëlee ci leeru yonent bi jërëjëf mbokk yi nag am na ci ñoo xam ne seen laaj yi yaakaar naa ne bu ñu ko dégloo tontuwaan lañ ko ci biir moo tax am na ci laaj yoo xam ne yëpp jëriñoo laaj jëriñoo tontu kii nag dafa laaj ñetti laaj ñaari moom day firi lu ñaari way waaye bi ci bu mujj bi defe naa ne moom moo ci jara moo ci gën a solo dafa ne nun xale nun taale bi yi nga xam ne ay gone la di liggéey sëriñ bi te gëm ko lool nan la ñuy def ba jariñoo ci ba jariñu ci li ci mag ñi jariñoo woon wan yoon la ñuy jaar sëñ Tuba radiallahu taala anhu wa arbaahu wa taala anhu daan def bu nit ki jébbalu dana la laaj ndax am nga ndey ak baay boo amee ndey ak baay mu ndey bi da ngay takkoo wax waaye bul dem nga ci yaay bi fekkee ne ndaw nga ñu yóbbu la ca daara ja nga jàng fekkee ne mag nga bu yóbbu la ca daara yi kër gi fekkee ne daara yi jàng nga dañu jàng ndax yoonam bi dafa yaatu dafa matale ndax sëñ Tuba dafay kaamil te al kaamilu ku mat day boole lépp ci lislaam boole sharia ak xaqiqa ndax sharia du mën a dem mukk te xaqiqa amul xaqiqa du mën a dem mukk te sharia amul diine ji yoon wi ci kaw diine ji la taxaw te yoon wi du mën a ñëw te diine ji ñëwul kon sëñ Tuba radiallahu taala anhu dafa waxoon mag ñi li nga xamee daf daan jàngale di jàngale ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu ko rabbi asxaabaka bi zimmi wala rabbi bi bëgg na nga yar ñi topp ci yow ci li ahlu dëkk ahlu ahlu kasaw tudde al himmatu waaye bu leen yaree jàng rek booba dafa daal di sant ñeneen ñuy jàngale moom muy continuer ci al himmatu al himmatu li ñu waxee woon sànq ci daara yi kon ñi nga xam ne bone lagul bone dañu wax ne lu mu wote jube lu mu wut a xamit li ngay xam mooy na nga xam lislaam ndax sëñ bi ci bopp dafa ne képp ku aju ci man digal naa ko na xam lu ay farataat man ci sama bopp warlu naa ne danaa leen dundal taalif yoo xam ne lépp lu ngeen war a xam mu kàllaf war koo xam war koo jëfe dana ca nekk kon ndaw li nga xam ne gone la moom nan njëkk a tàmbalee jéem a xam diine bi sëñ Tuubaa bind na lépp loo xam ne bii ndaw li war na koo xam ci diine mag li war na koo xam ci diine am na juróom ñaari téere yoo xam ne sëñ Abdou Lahad seetoon na ko ba xam ne muy lu taalib yëpp war a xam ne ci seen diine bu traduire lu ko ngir ñu jàng arab xam ko ñu jàng tubaab xam ko ñi ko xamul bu ñu ko laajee am ñu leen ko xamal ñu leen ko xamal ndax bu ñuy jàngee arab ñuy jàng français ñeneen ñu jàng leneen bu ñu ko traduire nga xam di dana yomb bu ko defee ñu xam boobu ñu xam yoon lan mooy tërbiyee ak lan mooy dëgg-dëgg sëriñ ak lan mooy dëgg-dëgg taalibe ñu xam li charte taalibe ak charte sëriñ ndax nit lu mu dugg te xamul ko mën na caa génn neen te sonn ca waaye boo ko xamee da nga daan ndax li di taalibe li jiitu mooy këm ak topp ak topp ndigal ak sanaxlu génne rëy ci sa xol génne kañaan ci sa xol génne bañ doomu aadama ci yenn illa gi dul illa sharia nga génne ko ci sa xol bàyyi xëccoo woyofal sa bopp na nga féete topp suuf kenn ku nekk xam li war am diine ba mu mat sëkk di di kartu yàlla di jàng xasida sëñ Tuubaa yi di jàng alquran buñ la xamalee li nga war a xam ba noppi mu leer la nag ci topp sëriñ bi ak jox ko sa lépp ci ngay mucc ci la sa lépp di mucc ni mu waxee ne ay taalibe maanaam ni mu woote ni taalibe nañu ñeent lañu ki nga xam ne dafa jaamu yàlla ba noppi liggéeyal ko dana tàbbi àjjana te fekk ko xisaab ndax sëñ Tuuba ak la ko tax a dikk la ko tax a dikk mooy xet lee da ngeen ci gisaw fekkoo bi ko Cheikh Moussa Ka bi nga xamee ne traduire na ko ci waram xam na ne sëñ bi wax ne ñi ko topp ñëpp pour lu war ñu dem safara kon moom dafa ñëw rek ngir xet lee fekk ñoo xam ne dañoo sampoon suñu gën gën gën ca safara mu teddi ko ñu bind seen tur ca waxul ma ko séeréer sa ay liggéey mu fag ko bind ko mu di set mu ne nag kon sama taalibe yi ñu ne lañu kii jaamu yàlla te liggéeyal na bu ñu koy waxtaane kon liggéeyal ko nan lañ koy liggéeyal ci ko ci ko fekkee ci ko fekkee nan la ko mën a liggéeyal ñoom ñu daal di dem àjjana kenn du def xisaab ñi nga xam ne dañ ko liggéeyal te jaamuñu yàlla daa ñu leen xisaab waaye daa ñu dem àjjana ñi nga xam ne dañoo jaamu yàlla woote woo ne muy suñu sëriñ te liggéeyal ñu ko ñu ngi ci kenn mu nëbbu ñi nga xam ne dañ ko wane te jaamu muy yàlla di gën ñu ko loolu leer na ñoom mooy ña ca des kon nag ñeent ñoo ñëw ci ci gën mooy ci tàgg ak jaamu yàlla ba jaamu te biir am nit meloo woo xam ne meloo ci boppam du fas lu murit ndax nit lu muy woote donte di ko gis moom it te mu meloo meloo woo xam ne ku ko gis xeet ko lu ngay doon lu muy woote sa muy woote mel ni jullit boo xam ne dafay naan sàngara ba noppi dem ci ñu ngi jullit naan leen man jullit laa ñu daal di gisee ne kon jullit nii la mel kon islam amul solo noonu lay daal di bëgg a demee kon ku toll ni sëñ Tuubaa booy woote yore islam ak yàlla yonent bi sant nañ la nga meloo meloo melaw yaru dëkk ak tëggiin ak xam la nga war a xam ak jaamu yàlla ak ngëm ak topp ko ndax ak toppee nit bokk na ci di gën a dëgër lépp ndax mooy buum bi takk taali bi ci sëriñ bi ndax bu ñu yëstu baari ak di mu yëngu saabatu loolu bu xidma bi buñ ko waxee aw tur bi la ko teg te bëgg li aw xali yéen nga xam ne xob bu bi sax ñaar yooyu yëpp buñ ci àndaluñ bu bu am ngëm ndax topp bi nga topp sëriñ bi moom rek la doon sax a texe moo lay jëriñ waaye bu topp ni mu ko faral da waxee topp gi mu la topp yow du ci dëgg ba jëriñ la topp gi nga topp yow moom la lay moom la lay jëriñu kon nag xale yi nga xam ne ay ndaw la ñu te ñu gën a dem leen yoon yaa ay yoon si yoon ndax te jafe noo ñu ko waxee de ay yoon daa ko dina loolu jafe noo ko jafe noo ko xel yi war ci laa ba sëriñ bi mu daal di taxawal wala ci ñun mën naa yaakaar ne ah di dem di dem di ci dara dara bàyyi daal nee na ko kullu man baa dara waxtu dëggal ci la mu def dara waxtu ci bëri ba mënta daara ka dañu pat faata ñu la waxam na ko faata bu toog ci ñu wax ci bari ci def ay faata bi ko mari mu ne nag ah ko mu ci hadi la ko fa ba ko ci waaw ko xaar ma ko ñu aflaw kon ndaw ñi nee na dem ngeen di gaaw fëkkam seen xam-xam xam ñu ñu jàng alquran jàng seen bi ndax bu bu leen wax tamit ñu ne murid bi dem tam yàlla mu ngi leen seen murid bi yàlla ci gën a leen ko seen bi daan ñu leen ko kon na leen jëlee ci seen na leen jëf ci seen bu leen jëf ci seen rek da ngeen xam fi ngeen ci gën a jëf dimbali ko ci yàlla tarax na boppam na lu la jafe ci topp yàlla nga di ko diis suñu borom moom mën nan wala boog tarax na ak ak yar suñu borom dana la jàpp ni dana noonu ne ndax xol bu suñu borom def ci moom ñu la am ci suuf si day ci ay xaram ba du ci ci mi'raaj bi yaakaar naa ne mën nañoo dem ci laaj yi mën naa am mooy gën a intéressant sax.
man fi yàgg dama.
yaakaar naa ne ñu fi nekk ñëpp jëriñu nañu bu baax a baax a baax li ñuy ñaan rek mooy ñu dégg ko te jëriñoo ko laaj yi nag am na fi laaj yu bari yu fi ñëw bi ci nekk mooy dafay laaj ne dafa dëgg yu jàng talfaan ne yow ma nad'u kulla unaasin bi imaamihim mais ndax loolu yàlla day woo rek kilifa xeet woo wax wax ak ñoom daal di bàyyi ñi ci def wala nu ñu koy dégg loolu mooy première question bi ñaareel bi mooy dafa wax ne wàllu yi woo xam ne dafa jubluwaale ak wilaayaam mooy ndax kookee dana mën a mooy yàlla dana mën a mooy yàlla man wàllu woo xam ne dana jubluwaale ak wilaayam mooy ndax ci ngoneem dana mooy yàlla di def lu naqar yàlla walla déet waaw mu ne wàllu yoo xam ne wilaaya gi daf ko indaale ndax dana def loo xam ne dafay dafay naqar yàlla walla su ko defee dana ko wàññi dara walla déet waaw wàllu yoo xam ne dafa indaale wilaaya moom tey mën na mooy jërëjëf radiallahu taala anhu bu ñu ko laajee xam ni yaasi la aarif ndax aarif bi daal wax na sax wàllu rek waaye aarif xam nga ne aarif catégorie wàllu bu kawe la aarif ay aarifoon yi ak siddiqoon yi bokkuñu amadul awliya yi ñooy suñu gën a kawe maqaam lañ bokk ndax dana mooy mu ne wa kaana amrullahi qadaran maqdura ndax suñu borom sàkk na jaam ñoo xam ne waruñu ko wax sax sàkku leen ngir ak tay wala ngir jaamu wala dara daf leen a bind rek ngir àjjana wala bind leen ngir boppam seetlu si ñun ñuy jëf dara bind leen ngir topp bind leen ngir moy bind leen ngir fay tuyaaba bind leen ngir bàkkaar daf leen a bind ngir boppam rek ngir àjjana am kon bu fekkee ne wàllu bi bokk na ci ñooñu loolu mën na koo def ni ko seen juróomi di waxee rek wa kaana amrullaahi qadaran maqduuran yàlla dogalam rek mooy dox ci jaam ñëpp kon lu mu ndax yàlla day dugal lëndëm ci biir leer di dugal leer ci biir lëndëm dana fekk jaam boo xam ne li ñu wax ne wa kam min aduwin fil adaa wa kam min sadiqin fil ghadaa mooy wa kam min aduwin fil ada bari na noor bu yàlla boo xam ne mu ngi ci jaamu yàlla du jaamu rek te du noppalu wa kam min sadiqin fil xaba bari na xaritu yàlla boo xam ne mu fil xaba wa mu ngi ci ak ak ndox maanaam mu ngi ci mooy yàlla ak dëng ak ak ak nàkk ji kon suñu borom tabaraka wa taala am na benn ci taalibe yu mag ñi ko doon laaj naan dafa bëgg ñu mu ñu dimbali ko ba mu wattandi ko bàkkaar man bañ a def bàkkaar mu kooka mu ko laaj ci aarif bokk ci aarif ne billahi ni ko bàkkaar kat daanaka mënu la ragal boo ko tuddee ñu jéggal la mu ne ko lu ma sa ragal mu ne ko la sama borom bind ci alliwaat njëkk du ko far mukk te xam lu mu doon loolu am na sa ragal kon suñu borom lu ko soob lay def jaam dana def loo xam dana mooy mooy goo xam ne kii mooy gaa koy mooy sababu yóbbu ko àjjana faral nañu misaal yéen bintu ataba bi ñu bi nga xam ne rey lu na Seydina Hamza ba ñu rey Seydina Hamza mu topp jullit ñi ñu rey ci Uhud di xoof seen i nopp ak seen i tuñ ak seen bakkan ak seen mbari bët di ko def ay jara ak teqal bu mu am àgg Seydina Hamza mu xot ci biir bi génne res bi di ko yëy ngir xaare ko bi nga xamee ne deret tuuti ci deret ci res Hamza yéeyu ne ci biiram yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñu borom bañ na ne du boole mukk safara ak deret Hamza ci biiru Hind ba Hind dafa dal ci tuub bokk ci am ci amee daraje saxaaba naka noonu Umayr nu wax ñi nga xam ne dafa juboon ngir rey si yonente bi alayhi salaatu wa salaam ba mu toogee ca ndox darum Kaaba ga waxtaan ak Safwaan ñu fàttaliku Badar ñu ngi ci rey ci saadatu Quraysh seen sang Quraysh yow ñu rey ci Badar ba ne léegi tey daal kaw suuf bii suuf a ko gën dee gën di dund di dox ci kaw suuf gannaaw sangi Quraysh yooyu ñu rey léegi man de wóor na ma ne bu dul woon sama njaboot gi may bàyyi gannaaw ndax xam naa ne bu ma reyee Muhammad daañu ma rey waaye kon danaa dem rey ko kooku Safwaan ne ko danaa la gàddul ne sa njaboot boobu danaa leen boole sama njaboot lépp loo xam ne lii war na ma sama njaboot danaa ko def ci seen sa njaboot kon tey boo nga dem Safwaan daal di namm jaaseem daal di koy gàccoo dem bi mu accès Seydina Omar xam ngeen bokk na ci muhaddatoon li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal na Umar ibn Wahb bi kii di ko ludul ay ay rek ko mu ko daal di laajte yonent bi daal di dem bi mu àggee ci yonent bi bi mu daataan àgg ci yonent bi Seydina Jibril jiitu ko ah Seydina Omar astafurlah alazim jiitu ko ci yonent bi ne ko Umar ibn Wahb bi ñëw di ko ludul ngir ay mu ngi gàccee jaateen mu ne ko bàyyi ko mu ñëw bi mu accès mu nuyoo moom manoppi ne ko loolu mu si mu ne ko sama doom bi nga xam ne bokk na ci jaam yi ngeen maanaam ñi ngeen jàpp Badar muy ngeen def ko jaam dama bëgg ngeen waaye falal na ak njëkkam ma def ko bu ne ko dee dikkuloo ngir loolu li tax nga dikk kay waxuloo ko moo di man nii nga bëggoon a jël sama bakkan mu ne ko déedéet loolu taxumaa dikk mu ne ko ba nga toogee ca ndox borom kaaba ga yaa ngi safwaan ngeen wax nangam nekk li ko doon waxoon lépp mu daal ne ko ah loola day booba kenn nekk fa te foofa laa daal di jógee dawal sama fas kenn digg si woo fi kon daal xam naa ne yow li ngay woote dëgg la yow yow yonent nga kooku nga xam ne kon rey Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom bàkkaar bi gën a màgg si bàkkaar yi moo ko taxaw na jóg loolu far di texeem mu ko am waxuma la ne muy muy nit ku texe rek waaye mu am daraje saxaaba yi bokk ci saxaaba yi lu doy waar nga kon suñu borom bi ko soob lay def ñu ne ji la def ne gis naa rek la def. dama ne doo kulle unaasin bi imaamihim alquran suñu borom ne ba nga xamee ne danaa woo lépp mbooloo lépp xaaju nit bu mu doon fekk leen jiitu woon. li imaamihim mufassiroon yi nga xam ne ñoom dañuy firi alquran mooy ulama zahir ñoom noonu. nit nit mooy yonent yi ak képp koo xam ne it woote nga jëmee ci yàlla mbooloo topp la ndax yonent yi ñoo jiitu kenn ku ci nekk daañu la laaj yow yonent yi seen bopp la ñuy njëkk laaj suñu borom ne leen ndax la ma leen yónni woon ci jaam ñi ndax defal ngeen ko kenn ku ci nekk da nga ne waaw waaw defal naa ko bu ko defee saw xeet ña weddi woon danañ ko weddi nit déedéet waxuloonu dara xamuloonu dara ana kuy sa seede su ba ko defee suñu borom tabaraka wa taala dana laaj yonent boobu ana kuy sa seede bu ko defee bu ko defee daal ne bu ma ta waxatan li takoonu seeda ala naasi mu daal ne sama seede mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam bu ko defee xeet woowee dañu daal ne déedéet Muhammad ak xeetam boobu ñëwaguñu adduna mënuñu noo seede ñu ne xanaa kon weddi ngeen alquran alquran ci boppam moo xamal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam seede na bépp yonent bu fi ñëw ak la mu waxanteeg ay ñoñam ak la ñu la mu jëflante ñoom ak ñoom it la ñu jëflante ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw xamal leen lépp ba ci tafaasil yi gën a taw mu daal leen di leer ne amatuñu lu ñuy mën a weddi loolu mooy di njëkk gannaaw xeet yooyu nga xam ne ndax lislaam a jiit lépp te lislaam a tax kon maanaam diine moo tax ñuy woo yonent yi kon ngir taxal layu ne yonent yi wane nañu xam le nañu lañ leen yónnee nii bu noppee nag ñu soog a seetaat nag jaam yi kenn ku nekk fa la jaaroon bu keroogee xam nañ ne képp koo xam ne kii ni ko sallallahu alayhi wasallam waxee ne woote nga lu mat nangam ci nit lu mu néew néew topp la keroog da ngeen taxaw ñu seet na nga jëf leen teeg ñoom bu boobaa nag ñooñu kuréel yooyu ñuy wooxaat gannaaw ba ñu saxalee ne yonente yi wax nañu dañ leen yónni woon ba mu mat ñu waxaat nag jaam ñooñu jaam ñi nga xam ne nag dañoo réeral ñi leen topp wala ñi leen topp amuñu seenu añ keroog daañu xuloo boo jàngee suuratu saba da nga gis ne keroog waxaale la ñu fóot leen sëkk borom loolu antum lakum naa moom nii nag dañu taxawee di xuloo nga xam ne keroog layoo lu nekk dana layoo lu ne baroo ak yaram layoo waaw faral nañ koy misaal seen layoo ak seen xuloo bu boobaa képp ku ñu toppoon da nga xuloo ka la toppoon bu fekkente ne la nga yaakaaroon ci moom amul wala jàddaloon jaaraloon na la weneen yoon ko defee mu leer na la nag xaqa alayka al qawlu xaqa alayna qawlu rabbina inna la zaiquna mu daal leen di leer na ñoom ci mbugal la ñu jëm ñu ne nag suñu borom léegi ñii nga xam ne noonu lañ ko bu inna atana sarakna wa kubarana fa adallu sabila rabbana fa atim bi'tin atim bi'tin min al azab wal anum la'nan kathiran ñii de ñoonu tànk démb ak bëgg démb ñoom la ñu toppoon ñoonu féete woon kaw ñoonu yilikoon ñoom la ñu toppoon kon nag ñoom boo nu mbugalee na nga leen benn na nga leen mbugal fukk na ngay fut seeni mbugal ndax ñoom li ñu def ak ak li ñu def ñoo ko ñoo ko ñoo ñoo ko def lépp seen jëf la ñoonu réeral ñoo réeral seen bopp ñaane ni leen te yéen bu ñu ak yéen yéen sax da ngeen fa xayitu muxnoona anaa nasiban mina naari da ngeen war a sabal ci sunu mbugalum safara da ngeen ñu ci war a yel ab xaaj ndax yi lu nu dal yéen a nu ko yóbbee ñu leen naa ko lum fiha ila qadaxtam bay ñun ñëpp bokk nekk safara yi bu leen leen xeebu amunu leen dara mun leen moome woon ba di leen jaarale fenn daf leen a neexoon rek yéen leen nag bal makru leen wa nahaari seen pexe ñu leen nu daan fexeel guddeeg bëccëg di ñu jaarale ci yoon yu bon moo indi yow bu keroogee nag alquran ci boppam dana ñëw ànd ak ñoñam ñi mu war a àndal boobaa danañ xutbul ak saab xutbul xaw fi yoo xam ne suñu borom dana yebal ay jaam ñoo xam ne dañuy yéene yëkkati fa gën a kawe ci baat ca bërëb bëgg ci bis penc ba ne ko àndoon ak diw jox nañ ko bu wóolu te na ànd ak moom dem àjjana xam ne bu keroogee képp ku ñu toppoon ma ngay ñu ngay dale ca yonante bu yonante yi ñëwee képp ku ñu toppoon da ngay nit koo xam ne ña la topp jaarale nga leen ci yoon wu baax bu ñooñu réer ñi nga xam ne képp ku ñu toppoon te ña la toppoon te dañuy réeral ñooñu ñoo cay topp kon ñooñu ñëpp ci di tëmbale ko kon ndax am na jaam ñoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa ñi nga xam ne rek toppante woon nañu ngir yàlla te bépp xutbul xawsu boo xam ne ñëw nga fi xaggul nga ña la topp loolu bu keroogee ñu ne fekk taw ji daan wax na ko ci xóon ya bu ñuy àtte ca gis penc ba suñu borom daf leen di beer ndeer ci kaw lal bu kawe nga xam ne dañuy tiim lépp waaye bu ñu nekk ci penc ba dara suñu borom di leen fa beer ndeer ñu nekk ci ay xéewal ba bu ñu fa jógee aw yoonu àjjana dañuy laaj seen da ñoom ci yoon wi naan ndax waaw gis penc ba kañ la ñu ne leen penc ba tax na bu yàgg ñoom ñu daal di jaaree liggéeyam dara dafa lu ñu nekk
dafa wax ne ndax réew moo xam ne kenn sañ parti parti islamique ndax nit ku fa ne sañ ngaa soutenir parti yi nga xam ne duñu dë- maanaam duñu faral islam maanaam duñu àtte woo jàpp islam ndax ñoo xam ne sañ nañ leen ànd ak ñoom ba lay laaj. la nekk ñoo xam ne kenn sañu faa kenn sañu faa def parti islam ku ca ku ca nekk ndax du àtte woo ci islam loolu na ci nekk képp nit koo xam muy parti muy leneen lu dul parti muy ay mbooloo muy benn nit képp koo soutenir te nga xam ko nga dimbale ko te la muy def yéene say bokk bu dee lu baax yéene say bopp bu dee la muy yéene say bopp parti parti islam itam ku ko war a tere ndax gannaaw dañuy wax ay courant de pensée ay nit di def ci parti ci pensée yoo xam ne ay xalaat yi doomu aadama la kon diine kenn waru koo ñemee tere ci def parti kenn ndax dañu bëgg léegi ñun jullit ñi dañ bëgg a dugal seen bopp ne leen l'islam du politique sallallahu alayhi wasallam ko topp ci am débat ñu sallallahu alayhi wasallam jógee itam saxaaba yi ñi ko wutu ñëpp dañoo nekkoon yeneen ci nekk am débat yoo xam ne yooyu nit ki l'islam bañ nañ ko ba dañoo sàkk atte yi lépp te atte yi lépp bu ko ku ku yunisul doo ko sañ a def doo am na atte lépp l'islam kon wuti na christianisme ndax l'islam dafa atte lépp ci jàmm atte na sëy atte fase atte xuloo atte xeex atte dono atte lépp lu am kon l'islam ci boppam dafa prévoir al xakuma islamiyya maanaam gouvernement islamique léegi nit ñi gannaaw li ñu gëm lu dul diine yi sañ nañoo woote jëme ca sañ nañoo sàkk sàkk mu jëm ca comme li ñu gëm ci gëm moom amul amul liberté bu war a jëm jëm loolu kenn mënu koo dégg loolu kenn mënu koo dégg parti islamique kenn dañu ko am dañ koo gëm loolu ñu gëm waaye lu tax parti chrétien di am kenn dañu am ay parti loolu jullit ñee ko nangu seen bopp ci seenu nasax ak seenu tàggal waaye lu mënu la kenn mënu koo def ndax l'islam kay naka jël ak si l'islam dafa daan am nga xam ne kii jullit ñi muy xalifa wala muy sultaan day atte loolu mënu ñàkk mënu la ñàkk nag li xew nag moo di bépp jaam buy jëf la muy jëf na ko seet ëllëg te xam ne am na responsabilité man nag wax moom ci politique bu jamono bi damay wax rek sharia ak l'islam waaw sharia nag dafay ku ko wax dana am koo xam ne day am impact ci politique ndax sharia li mu ittoo mooy nit ñi ak lu leen jubal ak fa ñu war a jaar politique mooy na ngay womnati nit ñi na nga leen di jaarale ci yoon woo xam ne day defar seen adduna jëme leen ci réew mu yokku nit ñi jub am jàmm wér am alal kenn bañ a tooñ sa morom kenn bañ a fat li di kenn loolu ci la politique jëm mënul ñàkk ci adduna l'islam daf daawoon boole maanaam li nga wax ak ak diiru wala l'islam diiru ma daw la loolu la nga am buñ demee ba mu teqali koy l'islam li nga xam ne mooy dëgg dëgg arab bi ñu dawla ji ak maanaam dawla ji dañ ko defal ngir protéger jullit ñi ndax waxaati ñoom xam la ko ci la alquran wax di xare yem ci sala sama di xare yëpp di ca diini ne dafay forcer nit ñi ci ngëm loolu ñu xamul ñu koy wax ndax la ikraha fi diini parce que day ngëm ci ngeen xay ngëm te ñu caa forcer kenn ndax ngëm ci xol la nekk waaye nag waxaati ñoom xam la ko ci ngëm ni xeexal la ñoom ba ñu ku nekk sañ a dugg ci diine bu ko neex boo duggee ci diine boo xam ne bii du l'islam ndax gëmuloo l'islam itam l'islam prévoir ne lan lañ war a jëflante ak yéen mu di ñu ngi al muahaduna mooy ahli sunna ahli sunna bi junne yoo ne yëpp l'islam daf leen a atte te ay nit lañu ñoo xam ne xeex nañu ba l'islam nag foofa waaye dugguñu ci diine bi loolu wala te du tee bu ñu xasee ban nangu dootu ñu xeexal ñoom kon war na ne xeexal ngir dugal ñu rek ci l'islam ndax l'islam dañ koy leeral ba mu dugg ci xol nit ki xam ko gëm ko daal di ci nangoo dugg waaye bu loolu amul amul kon nag l'islam moom diine la joo xam ne bu ñu nekkee foo xam ne dañu leen a yilif ñu ne l'islam donc rek la ñu war a def bu ñu yilifee itam muy muy nguurub l'islam ñu ne l'islam donc la ñu war a def waaye nag ñu kenn mën la bëgg moo di l'islam duñ ko politique loolu kuy jullit mënu ko bëgg te xam ni l'islam mënu ko bëgg moo tax ñu mën a politique nag suuf ni lu tax ñu mën a politique capital bi tax ñu mën a république républicain républicain la ci démocrate la wala leneen la loolu yëpp ñu mën leen a politique te mënuñu politique bi tam mënuñu ko ko dégg ndax nit ki lu mu gëm doctrine la boo xam ne daf ko dafa gëm ne moo mën a baaxal adduna bi moo ko mën a gëm jullit bi nag l'islam rek la jàpp ni moo mën a baaxal adduna bi ndax ni ma waxoon sànq ne l'islam bu fekkoon ne ci ne nit jaar problème yëpp dana résoudre ndax nit ki dootu ragal jëm doole joo xam ne bu defee lii naa koy nitam ba du ko ñemee def ndax doole jooju boo nëbboo ba def lii te kenn xamu ko da nga mucc ca doole ja bu dee jullit ñi nag da ngay xam ne mënuloo nëbb wàlla te daf lay wóor ni itam tooñ boo tooñ lu mu tuuti tuuti ëllëg da nga taxaw ci kanamu yàlla te jaam bi nga tooñ ak xam dana ko fag ci yow boo ko gëmee nga xam ne anna hunaaka rabban ya'lamu xaa'inatal a'yun wa tukhfi sudur yow rek mën a jub waaye dañu mënul jubal jaam bi dudul diine jëri ji daal nga xam ne fu mu toll xam na ne yàlla nga koy fay malaaka yaa ngi koy gis te lu muy def mi ngi koy dund loolu dong mën a dundal nit ki nit ki jullit soldat bi nga xam ne gëm na li nga xam ne moom la ko état bi sant du ca wur du ca war du lekk neexal attekat bi nga xam ne dafa gëm l'islam te l'islam ko sant muy dëgg ci moom du lekk neexal du faralante du affaire bu tëb naka noonu jàngalekat bi du jàngal nit ki ñuy réer lu koy réeral du jàngal nit ki njëriñal boppam du ko exploité du ko laaj dara ki nga xam ne itam mooy iliman bi bu xamee ne seen l'islam daal li ci gën a gën a jàpp mooy mën a former citoyen bi citoyen bi nga xam ne benn muy magistrat buy atte wala muy politicien wala muy kuy jiite réew lépp lu ci dem fekkee ne nit ci gën na l'islam dëgg dëgg dëgg te xam ne ne yàlla ko téem sa dem lépp lu mu def dañ koy rek la ëllëg te xam ne itam lu baax lu mu def dañ koy fay ëllëg kooku moom mooy ci gën a jub te mooy li muy mën a def ci nit amul keneen ku mën a jaar ci benn doctrine boo xam ne doctrine ba dana la surveillé noonu bu fekkee léegi réew mu ne moo gën a développé ci ci réew yi mu ngi Amérique nga xam ne mooy modèle adduna bi léegi ba ba Europe yi sax ñu ci ñu ci américains yi la ñuy la ñuy roy moom la ñuy topp mooy seen modèle Amérique xana daan ci ñu ngi gën a développé lépp loo xam ne lii détective yi am nañ ko ci formation ak ñi nga xam ne ñooy topp sàcc yi ak ñi leen di àtte ak police bi ñu ñu gën a farloo sàcc yi gën a farlu gën leen a farlu ñoom it gën a am ay pexe gën a am ay nëbbukaay gën a am ay laxas dossier yi tribunal gën a fees duñ ko mën a àtte police gën a bari ay problème yoo xam ne mënuñu koo lijjanti lépp loo xam ne li jàngalekat yi jàngale ba tax te du jëriñ dara nit ki li mu lay wax jàngalekat bi li mu lay wax daf koy wax ci école bi ci classe waaye bu ko yëngu ci jëfee dara ba nga xam ne élève bu ñu koy jàngal dem gisu ko dara xam ne dafay daf koy jàppale rek é- école la ñu war a waxee nii waaye boobu liggéey sa sa dund li nga war a dundee rek la nga dem ba nga xam ne bu fekkente ne ndax nit daal li mu santaane nit ki bu fekkente ne dañ koo jël mu wóor ne da ngeen di lay wax ëllëg nga war koo yar ba mu jub fekk du sàcc du rambaaj du fen du lekk neexal du du def benn dëng nga taxaw ci loolu nga xam ne da ngeen lay wax ëllëg nga tuddee ko su mu baax jàngal ko xamal ko adduna préparé ba nga xam ne bu génnee ci adduna bu bon itam du ko lor du ko jëlee du ko jëlee feneen kooku bu fekkente ne boobu responsabilité nga xam moom la ko lislaam teg mu topp ko ba mu mat keneen def ko keneen def ko day daal di nekk société boo xam ne moo gën a jub société bi nga xam ne moom la borom araw ahlul madinatul fadila muy Farabi wala Platon ñooñu ñëpp seen cité yi nga xam ne moom la ñu concevoir woon ni mooy modèle ba nga xam ne mooy cité bi nga xam ne ñoo gën a Europe ci adduna ñoom l'islam di formé citoyen bi l'islam di formé amul benn doctrine boo xam ne mën na formé citoyen bu ko jege bu ko xaw a ñu sax kon l'islam mooy li nga xam ne européen yi ak américain yi bu leen complexe jàppul woon ndax ñoom dañoo borne lépp lu jógee wut ci ñoom rek buñ ko foo dañuy koy daal di xeet dañuy am complexe d'expérience parce que dañu naan tiers monde jullit ñi ci la ñu ëpp te ñoo leen gën ñoo leen gën a développé ñoo leen ëpp dàq science ñoo leen dàq technologie ñoo leen ëpp alal dañ leen daal di xeet bu fekkoon ne nag loolu dindi woon nañ ko te xam ne l'islam moom kenn moomu ko arab yi moomu ko ajam yi moomu ko tubaab moomu ko kenn moom ci ñëpp a ci yem te l'islam moom képp ko ak ni démocratie ci l'islam la jóge ndax képp koo xam ne mën ngaa yor réew mi wala mën nga yor ab liggéey ak foo mën a bokk l'islam moom seetatul loolu l'islam kon wuute naag yeneen diine yi ci def ci loolu tubaab yi bu ñu xamoon loolu bu ñu duggee ci l'islam dana ñuy wane ci ak ñu ñëwee ci boobu bu boobaa ci ni ñu ëppee ay jumtuwaay waa tiers monde gën ëpp nañ ko xam-xam noonu la ñuy jëlaayee ci l'islam waaye nag lu ko complexe boobu mooy li dox ci diggante bi léegi amuñu ci l'islam lu dul ragal dem ñu ko nag dañ koo ragal ragal gi ko ragal moo waral maanaam islamophobie bi nga xam ne moo demee seen xol yi ba nga xam ne jàpp nañ ne moom bu dikkee day fas seen paas yëpp ba dootuñu teg ci dara li nga xam ne ahlul jahiliya di l'islam di woo ne leen léegi ñoom ñi nga xam ne yéen yéen ci dañ yéen sang kuréel ñii ngeen wax seen i jaam gënu leen leen fa yàlla ci gën a ragal yàlla rek gën daal di leen dindi foofu sa ci saxaar bi loo xam ne nii lu fa saxoon la daal di dindi li nga xam ne moom la ñu façon ci kaaba gi li ñu façon ci seen dëkk bi ñu dëkk waa ci Makka nekk waa kuréel si nga xam ne dañu ne ñooy sang ñi wan leen ne leen seen li ngeen daan jaamu tabax ko seen i loxo du dara nga xam ne day dindi civilisation bu bon boobu nga xam ne ah benn ay retard retard la dindi ko woon teg rek saxal beneen indi beneen noonu la nga xam ne moom la itam tubaab yi ragal xam ne ñoom itam bu lislaam buñ ci duddoo seen passé boobu yëpp daf koy effacé ba mu set wecc ndax ndax jaahiliya la indi nag afru lislaam indi beneen civilisation indi yeneen xalaat yooyu nag lañ ko ragale moom lañ ko bañe te conversion yu bari yi moo leen gën a tiitalu itam kon buñ nee lislaam lépp luy baax ci lislaam la nekk lépp lu bon beneen nekk fu dul l'islam doomu aadama yi feeg adopté wuñu l'islam jàmm du fi am nu ñu gën a avancé ci technologie ñu gën a avancé ci civilisation ñu gën a avancé ci philosophie ak lu ñu mën a xam léegi li xew leer na leeral na lépp buñ demee ba ci xarnu équilibre maanaam wëm seen ci wetam ñu xew Yougoslavie bi xew nga xam ne dara gënu koy barbarie dara gënu koy sauvagerie loolu wane na ne tëj nañu dugg ci l'islam ci li ñu tuddee civilisation doo am mukk mukk mukk loolu bu fekkoonte ne lislaam la ñu jëfe nit di am alal ba di taal ay maxsulaatam maanaam taal ay jëlu bële yoo xam ne ay million tonnes la nit di seet ci wetam ndax lislaam dafa ne du jullit du aji gëm ki nga xam ne day lekk ba suur aji dëkkaa leen xiif fekkoon ne lislaam la ñu jëfe doo gis ku ñàkk kon ci kaw suuf kon feebar yëpp xeex moom mooy noonu yi moom la ñuy xeex ba feebar yi ñëw kon dañuy xeex ak jikko yu bari yi nit ñi bàyyi fen bàyyi rambaaj bàyyi loo mën a am ak noo ko mën a amee rek wut ko bàyyi ku ëpp doole sa morom du ma ko nangu lam am boo ko mënula du ma ko mën koo nax nga nax ko nangu lam lekk bu fekkente ne yaa ko ëpp doole ci ay gànnaay yu fexe ngay fexe ba melal ko noo xam ne du sikki mukk fa mu toll day nekk société de consommation yow yaay produit di ko jox muy lekk nga xam yàlla na nga ko amee sa jaam rek mu ne si jëkkër nga xam ne du xalaatal boppam dara yaa koy wadd yaa koy dundal yaa koy
xeex jikko yu bon yi xeex ñàkk gi yooyu yëpp dana dañ bu fekkoon ne jëfe woon nañu lislaam yooyu yëpp day dañ loolu lu leer a leer a leer la bàyyi gi ci bàyyi lislaam nag ba ba adduna tukki nit ñi dañuy mel ne ay jën ci géej gi ku mën a wan na sa morom man ko laal waat la zang rek mooy xew
suñu juróom ci dem kon kon leeram laaj bi leer na lool kon xolam sedd na bu ñu dagg it dafa laaj ñaari laaj bu njëkk bi dafa wax ne bu njëkkoon dafa gis sëriñ si dañ daa tërbiye nit ñi tërbiye dañuy daw ci si ñi sàkket yi ak di yéeg ci kaw garab yi di daanu te duñ ko yëg muy laaj ba xam lu tax ñu daa daanu ak lu tax buñ daanu duñ ko yëg ñaareel bi it mu ne dafa gis ne ñu bari bu ñëwee wërsëg ñu ne seen liggéey ak ndeyam muy laaj ba xam loolu lu ci sa wax sëriñ si daan tërbiya dañu daan jàng tërbiya xam yoonu tërbiya di tërbiya nit ñaari xaaj la ruu ak yaram yaram moo bokk ci aalam bi ñu nekk lu jox la lu lëndëm la lu diis la lu leer la ruu principe la boo xam ne bi ñu teree bi ñu mayul ndigal yàlla ci platam mu wax na mu mel dafay nekk ci ulamaa yi ñu ne wala wax waaye principe la boo xam ne mooy principe xam yàlla xam lépp teewandoo ko bari wala teewandoo képp di ubbi ko di leer di loo xam ne mooy bunt bi ubbi nit ki digganteem ak yàlla mooy bunt bi koy xëcc jëme ci boromam ñi nga xam ne nag suñu borom noonu la sàcc buñ sàcc sàcc guddi daal di sàcc bëccëg sàcc kaw sàcc suuf sàcc góor sàcc jigéen sàcc xam sàcc réew sàcc jub sàcc dëng lépp lu mu sàkk sàkk bi mu sàkk dee lépp lu mu sàkk sàkk safaan ba te du tee mu harmonisé nga xam ne day mën a dundal adduna mën a dox te dara du sooxe booba la sàkk roo sàkk yaram yaram nag bi nga xamee ne suñu borom dafa sàkk doomu aadama sàkkal ko xel sàkkal ko xol roo ñaari roo la ak roo xayawaan yi mooy liy dundal nit moom la téere yi di wax naan gis mu latifu yaxyaa bi insaanu watteer bu woyof la boo xam ne bii nee ñu mooy dundal nit mooy dundal lépp luy dund li nga xam ne nag watteer boobu maanaam roo boobu mooy l'âme bestiale l'âme animale ah roo boobu ni muy duggee ci biir yaram di ko dundal noonu la ak roo tout li di duggee ci biir roo boobu boobu di ko dundal comme ni roo boobu moom mel ci yaram noonu la ak roo tout di mel ci roo boobu lii sott nag lii sottal ci diggante xolu nit ki ak ruu boobu ba mu ba nga xam ne ruu gi day ëpp doole ci kattan ëpp doole yaram yi ba jox ko meloon nit ki day jaar ci yoonu tërbiya boobu ba àgg ci loolu nekk maqaama maqaama aw melo lay doon loo xam ne du dañ ci moom nga xam ne kon day nekk wàllu yu am karaama am mën mënu mën a jaar ci kaw sàkkar yi mën a dëgg ci safara yi mën a jaar ci kaw géej gi di dox ni muy jaaree ci suuf si wala du maqaama ci moom waaye xaal la moo di am na ngëm boo xam ne buñ waxee loo xam ne lii tax na roogi dal di futti dal di épanouir yi ba nga xam ne lan la kon ci moom ci xel xel mi ne ko ndax xel dafa ne sonn na ci génn boobu xel ma wutee nag dootu ko gis li muy gis li muy nekk moo di roo bi nga xam ne mooy ak roo kutsi nekk gi mu nekk ba nga xam ne ak xàtteem rek mooy dox ci kaw nit bi mu ne bu ko defee mu mën a jaar ci kaw sàkke ni te du daanu mën a dëkk ci biir safara wi te du lakk mën a naan satala bu baax te du ci yëg dara mën a jaar ci kaw géej gi di dox te du lakk sëriñ si nga xam ne dañ daan prévier nit ki ba àggale ko ci loolu nga xam ne wax boo xamee ne xaal bi di kënam moo xam dañoo wax lu ko yéem ba yëngal ndëmam ba xolam fees ba bëgg ba ak roo kutsi yi jaxasoo ruuxul xayawaan yi ba jaxasoo yaram ba amee suñu accès àddina ndax doxalatu doxalatu xaram ruu boobu kàttanam ngay di sëppi ba nga xam ne li ko doon nekk nëjatu ko muy jël ci moom diggante bu gàtt lay doon bu weesoo rek nit ki dellu jëme raw moom ndax loolu du maqaamaam xaal rek la loolu mooy jël bi yoon bi ñu ko jaarale moo ko waral mu dem ba àgg ci loolu bu mu demee nag ba tërbiyee jeex ndax jamono ji yàqu ndax ñu def ko ñu ko sallallahu alayhi wa sallam rek àllaaxira bi gën a jege te nit ñi dolli kuuñu lu dul fàtte ko wan ko gannaaw dolli kuuñu ci yàlla lu dul wan ko gannaaw dolli kuuñu ci àjjana lu dul gën koo sori dolli kuuñu ci safara lu dul gën a jege boobaa tërbiya day lañ yoonu tërbiya day wàññi bi di sew di sew ba toll na karan di sew di sew ba kenn dootu ko gis boobaa yu bari yi bëggoon dootuñu ko gënal lu ñu daal di sax di nekk ci diine di jullee ko woor ni ay jullit lañu waaye bari dootuñu ko gënal ndax dañuy delloo ci nekk xel mi nga xam ne mooy seen ilimaan ci biñ nekkee ci ay caaxaan biñ nekkee ci adduna bi ci nit ñoo xam ne dañoo ëppal adduna ci kaw Allah àllaaxira xel moomu dañuy déggoo fi daal di dàq na roo daal di gën a sori kon ma ne woon loolu maanaam sëñ bi yooyu ñu naan ba ñu ñu ndax dafa mooy loolu moo wax nag moom laa misaale noonu nga xam ne ak rooxal kod fii mooy fikki ba nag nga xaal ba bu nit ci toll dama ne woon yaram ak rooxal xayawaan yi moo koy dundal ak rooxal xayawaan yi nga xam ne nag noonu la rooxal xayawaan yi di dundalee yaram ci nit ki ba muy dund ak rooxal kod fii moom it noona la duggee ci rooxal xayawaan yi mooy yaram ni moom it noonu la koy dundale boo demee bu nit ki demee nag ba toll ci diggante boo xam ne ak rooxal kod fii boobu fitti na ba kattanam nag kattan yooyu nga xam ne yëgatu dara du dul moom yëgatul li jaram bi ñëpp xel mi ci yaram ni fàtte nekkatu ci moom mënatu la xalaat dara bu boobaa acte loolu lépp day dañ ba set wecc acte ruux mooy dox te ruux mën naa jaar fu nekk waaye li mu dese ci yaram nag ak li ko téye ci adduna bi xawaat bi mooy moo moo ko tee mën a naaw loolu moo tax am yoon boo xam yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ne lan baada isa yaqinan la macha alal maa yi la macha alal maa yi moom bu ñu ko doon misaal dañu fi fanaan waaye nañ ko gàttal nañ ko yemale noonu rek comme laaj ko leen ndax état boo xam ne yàqee na fa mu tolloon xam nañ ni moom ñu la ruu lak maa wala wala sax wala moo tax bisu la wala bi ma tàkkalu ma ko dakkaroon si biir di ko laa xëy di ci la